salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabaahum bi ihsanin ila yawmi ddin amma baad fa inna xayra alkalaami kalaamullahi azza wa jal wa xayra alhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra alumuuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala léegi ci lu ñu war a fàttalante tey mooy xadis yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax naan sabaatun yudilluhum allahu fi dillihi yowma la dilla illa dilluh imaamun aadil wa shaabun nashaa fi cibaadati illahi azza wa jal wa rajulun qalbuhu mucallaqun bilmasajid wa rajulaani taxabba fi illahi ijtamaca alayhi wa tafarraqa alayhi ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقالت إني فقال إني أخاف الله عز وجل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه léegi xadis boobu nga xam ni xadis bu wér la boo xam ne muttafaqun alayhi la mooy euh, Buxaari soloo na ko Muslim soloo na ko borom xam-xam yi dëppoo ci ne xadis bu wér la te itam génn na ci yeneen téere yu dul ñaari téere yooyu lu mel ne musnad al imam ñoom solo nañ xadis boobu muy xadis bu wér kon léegi xadis bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf cee wax ne juróom-ñaar mu ne sabaatun juróom-ñaar a ngi ni ñoo xam ne yuzilluhum allahu mu ne yàlla dina leen keral fii zillihi ci keram nga yawma bis ba nga xam ne laa la zilla amul ker illa zilluhu lu dul keram maanaam amul benn ker bu dul keru yàlla subhanahu wa taala bis boobu mu ne juróom-ñaar ñooñu yàlla moo leen di keral bis boobu nga xam ne kenn amul ker bu dul moom yàlla subhanahu wa taala ba ci jiitu mu ne imaamul aadil mu ne njit boo xam ne njit bu maandu la bi ci topp mu ne shabun nasha fi ibadatillahi azza wa jalla mu ne bi ci topp mooy ndaw loo xam ni dafa màgg ci jaamu yàlla subhanahu wa taala bi ci topp mu ne wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid mu ne ñaareel bi mu ñetteel bi mooy waa joo xam ne xolam dafa taqoo ak jàkka beneen bi mu ne wa rajulaani taxabba fi llahi ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi mu ne waaleykum salaam ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante ci yàlla subhanahu wa rek tax mun ne ci kaw loolu lañu ànd ba ci kaw loolu lañu tàqalikoo mooy ci kaw bëggante boobu ngir yàlla subhanahu wa taala tax beneen bi ci topp mu wa rajulun دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله عز وجل mu ne waajoo xam ne dafa am ndaw soo xam ne ndaw su am personnalité la ndaw su am ginnaaw la ndaw su am taar la tamit daf koo sàkku ci boppam mu ne man de damaa ragal yàlla subhanahu wa taala bi ci topp mooy rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa axfaaha xatta la taalama shimaaluhu ma tunfiqu yaminuhu mu ne waa joo xam ne dafa génne ab sarax di ko saraxe mu nëbb sarax boobu ba loxo càmmoñam sax xamul lan la loxo ndeyjooram di saraxe lu ci topp mu ne wa rajulun dakara allaha xaaliyan fa faadar aynaahu waa joo xam ne dafa wét mu fàttaliku yàlla ci xolam walla mu tudd yàlla ci làmmiñam fàttaliku ko ay bëtam daal di taa ay bëtam dal di tuuru rongoñ léegi xadis boobu ci chaque ko maanaam ci léegi war cee leeral ci li nga xam ne mooy waxu borom xam-xam ni liñ ci wax ci xadis boobu moo ne léegi li yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax ne sabaatun juróom-ñaar namu ci ay mbindeef ay nit ñoo xam dañ leen di wàññi ne juróom-ñaar lañ ñoo xam ne dañoo meloo melokaan yooyu ñoom ñaar rek ñoom juróom-ñaar ñooñu rek ñoo ko meloo mais juróom-ñaari melokaan la yoo xam ni li ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam nam mooy képp ku meloo melokaan yooyu dugg nga ci dig boobu yonente bi alayhi salaatu wasalaam dikk mais du caagante ni juróom-ñaari nit rek la wax ne ñoom ñoom ñoo meloo melokaan yi bu ñu dee yàlla daf leen di keral ci suuf keram gi bis boobu nga xam ne kenn du am ker ku dul moom mais juróom-ñaari melokaan la ci namm waaye nammul ci ay ay nit bayib léegi mu ne yuzilluhum allahu fi zillihi yàlla subhanahu wa taala daf leen di keral ci suufu keram gi léegi keram googu borom xam-xam yi wax nañ ci ay wax ñenn ñi nee nañ ker gi liñ ci nam mooy keru arash mooy arsh yàlla subhanahu wa taala yowmal qiyam keram gi muy am ci suuf yàlla subhanahu wa taala foofu la leen di dugal te loolu am na ci ay ci ay riwayat yoo xam ne ñëw na ci xadis bi wér la yoo xam ne ñëw na di wax ne yudilluhum allahu fi dilli arshihi yowma la dilla illa dilluhu yàlla daf di keral ci suufu keru bi bis boobu nga xam ne kenn du am ker ku dul moom kon loolu sax la ne suufu keru arasham am na si borom xam dañ ne liñ ci namm loolu mbir boo xam ne lu lu lu jëmmal nii la mais maanaa loolu lañ ci namm parce que arab yi dañuy wax ne nit yow day diw mi ngi ci keru diw mooy ne mi ngi ci sàmmeelam mi ngi ci sàmmeelam ne kooku moom moo ko sàmm moo ko aar ba bépp tiitaange boo xam ne dina dal keneen du ko dal par exemple léegi nit boo nekkee ci suuf protection nit ci jamono seen arab yi nga xam ne léegi par exemple nit ki mën nga am sa giir danga nga am ak ñoom problème comme yonente bi alayhi salatu wasalaam masalan bi mu nekkee ci biir màkka di woote ci daawam nga xam ne dañ ko noonu woon nit ñi daal di koy rejeté léegi bu fekkoon par exemple moom giiram rejeté wuñ ko woon yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu bokk na ci li ko gënoon dimbali mooy ne ñi mu bokkaloon deret bañ ñu bëri ci ñoom gëmuñu ko woon dañ ko doon défendre ngir deret ñu bokk moom parce que ñoom deret dafa rëyoon ci ñoom loolu mais par exemple léegi saxaaba yi nga xam ne ñoo doon dund moom ci màkka am na si ñoom ñoo xam ne seen i giir dañu leen a daal di rejeté woon seetaan leen aaratuñu leen te boobaa boobu jamono yooyu booy dund ci biir kuffaar yi te kenn aaru la amoo kenn ku lay protégé ci ñoom nit ku nit ku la tooñ def la dara du am ku la fayul kenn du la fayul nit ñi dañu lay seetaan léegi daan nga dem ci nit léeg-léeg na ko dama bëggoon dugg ci sa suuf protection mooy léegi nga protégé ma ba léegi képp ku ma laal mel na ne yow la laal léegi bu boobaa bu ko waajooju nangoo day doon nit ku am personnalité nag ci biir xeetam bu ko nangu woon day dem ba ci biir nit ñi mu a leen diw day képp ku jotee teg moom mën nga joteel parce que mu ngi sama suuf protection léegi suufu protection boobu daan nañ ko liñ daan nañ ko wax di wax ne huwa taxta zilli fulaan mooy ne moom mi ngi ci suufu keru diw du caagante ni suufu keram ker boo xam ne bu ñuy gis la nii mais mooy ci suufu sàmmeelam ak protection la nekk am na ci borom xam-xam yi ñee ñoo xam dañ ne xadis bi loolu lañ ci namm mooy ne léegi ñii dañuy nekk ci suufu sàmmeluk yàlla yowmal qiyam ci protection ba lépp loo xam ne tiitaange la bu nit ñi di am ci taxawaay boobu ñoom duñ ko am mais boo gisee maanaa bu njëkk bi ak bi yépp mën na nekk benn ba léegi parce que léegi yàlla jël leen ci tàngaay bu metti boobu ak taxawaay bu metti boobu nga xam ne kenn du am ker yonte bi alayhi salaatu wasalaam mu ne dañuy wàcce jant bi ba mu tiim bopp nit ñi ci distance boo xam ne bu jege la parce que léegi distance boobu nu ko yontu bi alayhi salaatu wasalaam waxee dafa nekk loo xamante ni du sori lu jege lay doon loo xam ne mën nañ ko déggee mu nekk lu war a toll ay 1 kilomètre ci natt bi mu wax ne loolu lay doon maanaam dañuy wàcc jant bi ba mu tolloog boobu distance mën nañ ko déggee tamit lu gën a jege loolu loo xam ne du sax sori bopp doomu aadama yi da di tiim loolu te bu boobaa léegi day waral ci nit ñi waaleykum salaam wa dañuy ñaq comme ni mu ñëwee ci xadis bi wér yonte bi alayhi salaatu wasalaam ne wa yaarafu naas maanaam nit ñi dañuy ñaq ba ñenn ñi seen ñaq dafay ñëw ba di leen ngalaat mooy day ñëw ba tolloog seen gémmiñ nga xam ne dañuy xaw di lap ci biir ñaq bi léegi loolu nit mën na posé wu question ne doomu aadama naka la ndox mën a génnee ci moom ba taa ci suuf suuf naan ci ba mu dem ba taa ci kaw ba koy sax bëgg a labal parce que nit est-ce lu tolloog loolu ci ndox nekk na ci yaramam mais li ñu war a xam mooy ne axbaaru yowmal qiyaama mooy yowmal qiyaama dafay xew ci ay axbaar yu tiitlu ak yàlla mbugal yi muy mbugal nit ñi ci coobare yàlla lay dellu ak kattanam ak mën-mënam mais mënoo ko nga jël nga koy xiyaas di ko nattale ci dund bi ñuy dund fii ci àdduna parce que ñaari réalité yi bokkuñu yomal xiyam dund bi nit ki di dund bu waatee bu dekkiwaatee yomal xiyam du bokk comme dund bi ñuy dund fii ci kaw suuf foofu ruux bi mooy nekk en priorité ci kaw yaram ji fii sa yaram moo nekk priorité ci kaw ruux bi am na loo xam ne bu ñu ko tegee yaram bi rek da ngay mais foofu léegi ruux bi mooy jiitu yaram bi moo tax dee amul foofu encore du dee léegi nit li ñu xamoon mooy yenn yi boo ko ko subirele boo ko tegee dafay dee mais naka ngay jëlee nit nga lakk ko ba mu xëm nga soppi der bi defaat ci beneen der comme na ko yàlla subhanahu wa taala waxee ne kullama madijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha li yaduqul adab saa bu ñu demee ba seen der yi nga xam ne moom la ñuy yëgee der yi nga xam ne ci la ñuy yëg suñ demee ba mu ñor yàlla mën def leen di soppilaat yeneen der ngir ñu gën a mën a yëg li xam ne mooy mbugal léegi loolu li ñu xam ci àdduna mooy képp koo jël tàbbal ko ci safara dafay dee te loolu du am yowmal qiyaam kon da ngay gis ne réalité yi am foofu yi nit ñi di dund foofu ak li ñuy dund fii ci àdduna bokkul moo tax yowmal qiyaam ci lan la ko nit ki di gëmee mooy ne ci kumpa lay dellu réalité bi fa am ak ni ñu fay dundee yàlla subhanahu wa moo xam dëgg-dëgg naka la mel mais li ci sax jóge ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam rotee ci alquran nit ki daf koy dëggal gëm ko comme ni nga xamante ni noonu la rotee mais bis boo ci dëggalee sa xel ak ay interprétation seytaane lay mën soo moytul da ngay weddi loo xam ne mën la sa génn ci lislaam kon léegi loolu lu sax la ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy ne nit ñi lañuy ñaq am na ñoo xam ne seen ñaq dina ñëw ba ci place boobu naka noonu am na ñoo xam ne seen ñaq dafay nekk lu suufe loolu nga xam ne daanaka seen dojor la fay yem seen dojor la seen ñaq di yem loolu yëpp mi ngi delluwaat ci nit ku nekk sa jëf nu mu mel ci baax ak ñàkk a baax nu toll noonu ngay am ci sa ñaq lu mu lay sonalee ku nekk rek lu la sa ñaq gën a sonal rek ci gën a yëg gën a jëm ci kaw dafa fekk say jëf noonu la gënee bon ku nekk lu la yàlla subhanahu wa di gën a noppal ci métit boobu ak tàngoor woowu rek dafay fekk ne say jëf moom moo yiw moom moo baax léegi nag ci taxawaay bu metti boobu nga xam ne doomu adama yi dañ koy taxaw comme li yàlla subhanahu di wax naan yawma yaqumu nnaasu li rabbil alamin mooy bis boobu nga xam ne nit ñi dañuy taxawal seen boor buur bi nga xam ni moom moo leen sàkkoon bind leen maanaam yow ma bis bi nga xam ne yaqumu dañuy tax dafay taxaw annaasu nit ñi li rabbil alamin ñal ki nga xam ne mooy buuru mbindeef yépp moom moo leen sàkk moo leen moom bis boobu kon bisu taxawaay la boo xam ne <coughs> taxawaay boobu lu rëy lay jël ci bis boobu la léegi taxawaay boobu yàlla la sopp mu taxawal jaam ñi ci taxawaay boobu ñu taxaw loolu lañu ñuy wax al mawqif maanaam ñu ngi koy tuddee taxawaay ba taxawaay boobu métti na méttiwaay boo xam ne jaam ñi duñu xamagum fan lañ jëm duñu xamagum ba xam ñi dañuy dem safara ñi dañuy dem aljanna duñu ko xamagum léegi dafay dem ba ñi nga xamante ne bi sax seen destination safara la jëm taxawaay bi dina metti ci ñoom ba nga xam ne dañuy bëgg rek yàlla subhanahu wa taala daal di atte jaam taxawaay bi daal di yem foofu waaleykum salaam wa ndax taxawaay bi métti na méttiwaay boo xam ne nekk da ngay bëgg a libéré wu nga jëm fa mais dootoo mën a supporté ci métti boobu léegi taxawaay bi day tàng métti na ci te yàgg na ba pare tiitaange bi nga xam ne moom mooy def mooy nekk ci kaw nit ñi dafa amoon beneen pression boo xam ne moom lay defaat ci kaw doomu aadama yi loolu moo tax boroom nit ñi dañuy taxaw ba taxawaay bi métti ñu dem ci yonent yi dem ci yonent yi pour sàkku ci ñoom ñu ñëw rammu dem ci yàlla subhanahu wa taala def rammu intercession pour yàlla subhanahu wa du pour yàlla yërëm leen dugal leen aljana de mais pour yàlla yërëm leen ci taxawaay bu yàgg bi mu atte leen ñu tasaaroo foofu nga gis ne kon maanaam shafaatul uzma boobu mooy ramm gu rëy googu bu mag ko nga xam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam da koy def ginnaaw bi ñu jaaree ci aadama ñëw ci noox dem ci Muusa ñëw ci Isa ñoom ñëpp dañoo delloo dañoo delloowaat ramm googu ba ñëw agsi ci yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla moom la ko jagleel moom la ko askanale moom mooy dem sujjóot ci suufu arash yàlla subhanahu wa taala wax yi ko ci xamal ko ci <clears throat> tagg yàlla yi ak kañ yàlla yi ay mbir yu màgg yoo xam ne ci lay tagg yàlla kañ ko ci yàlla ne ko jugal nga ñaan ñu may la jugal nga laaj ñu jox la ci lay daal di laajee yàlla subhanahu wa taala ngir mu àtte jaam ñi ñu tasaaroo mu daal ñaan yàlla subhanahu wa taala itam mu yërëm xeetam nga gis ne kon doomu aadama yi taxawaay bi dina metti méttiwaay boo xam ni dañuy dem ci yonent yi pour ñu def shafaa du pour yàlla subhanahu wa ta'ala dugal leen aljana mais pour yàlla atte leen bañ tasaaroo ci taxawaay boobu la léegi taxawaay boobu nga xamante ne bi dafa metti ak tàngoor bu tar woowu la yonente bi alayhi salatu wasalaam ne am na juróom-ñaar ñoo xam ne day yàlla dina leen génne ci tàngaay woowu mu keral leen ci suuf keram te boobu kenn du am ker ku dul yàlla subhanahu wa léegi juróom ñaari ñooñu ay melokaan la yoo xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam bu mu ko waxee ba pare daf koo lim benn par benn léegi nag ndax juróom-ñaar kase la maanaam ndax léegi xadis bi ni mu tënkee ne sabaatun juróom-ñaar kase moo rot ci xadis yi yonente bi alayhi salaam jóge ci yonente bi alayhi salaatu salaam yépp ne juróom-ñaari melokaan yi kase la wala ndax am na yeneen melokaan yoo xam ne rot na ci yeneen xadis ne itam ñoom dinañ dugg ci yërmande bi mooy keral googu yàlla di keral fialan am na am na ci borom xam-xam ne ñoo xam ne topp nañ xadis yonente bi alayhi salaatu salaam gis ci yeneen critères yeneen melokaan yoo xam ne nit ki bu ko melowoo yàlla dina ko keral ci suuf keram ci bis boobu te bokk ak melokaan yi nga xam tudd na ko ci xadis bi lu mel ne li yonente bi alayhi salatu wasallam di wax naan man andara mu'siran aw wadaa anhu adallahu llahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluhu mu ne léegi képp koo xam ni da ngaa muñal koo xam ne da nga koo lebaloon te yàlla def am amam demeewul noonu maanaam mu ñàkk nga muñal ko léegi bañ koo taxaw bañ koo sonal ci loolu ngir yërëm ko ci kaw ñàkkam googu wala sax nga teggil ko loolu nga xamante ni moom moo nekkoon ci kawam moo xam da nga koo baal far bor bi wala mu amaat beneen problème nga jàppale ko ci teggil ko problème boobu parce que aw wadaa anhu mën na nekk ni sax da nga koo jéggal far baal ko ndax xëy na dafa ña dafa la leboon wala mu am lu mu la yoreloon nga ko koy topp mais nga xam ne kii fexlan ba ñu laa fay mais dafa am problème loolu tax nga jéggal ko wala sax nga daal di koy gën a euh, mayaat beneen délai mu ñal ko loolu yonte bi alayhi salatu wasalam képp ku ko def yàlla daf koy keral ci suuf bi bis bi nga ne kenn du am moom amaat na aussi yeneen xadis yoo xam ne lu mel ne islaalu alghazi fi sabilillah maanaam léegi koo xam ne dafay génn di dem di jihaati ji ci yoonu yàlla di dox ci naaj bu tàng bi nga keral ko képp ku def loolu waaleykum koo xam ne da ngaa ñëw fekk kuy dem di jihaat fi sabilillah nga defal ko ker daal di ko koy keralee ndax naaj bu tàng bi mu ne yàlla subhanahu wa taala itam daf lay dugal ci suuf keram gi bis bi nga xam ne kenn du am ker ku dul moo am kon am na yeneen yoo xam ne rot na am na yu wér am na yu wérul ci ay textes yoo xam ne day wane ne du juróom-ñaar donc mais am na yeneen melokaan yoo xam ne itam yonente bi alayhi salaatu wasalaam tudd na ko ne ku ko meloo yàlla daf lay dugal ci suuf karam gi bis boobu la léegi nag li nga xamante ne bii moom lañ mën a déggee ci jëmmi yàlla subhanahu wa taala jagleel leen xéewal bu rëy gi mooy ak texe goo xam ne yàlla da leen koy jox parce que léegi lii dafa bokk ci mandargay texe goo xam ne ñoom dinañ ko texe yomal xiyaama du caagante ne yàlla daf leen rek jagleel leen mbir boobu mu yam foofu léegi bu fekkente ni lii dafa am yàlla subhanahu wa keral leen ci suufu keram gi ci tàngoor bu metti woowu ak taxawaay bu metti boobu loolu ci mandargay seenu texe la boobu maanaam léegi lu ñuy tegtaloo la ci seenu texe su fekkee melokaan yooyu nekkoon na ci ñoom léegi kon juróom-ñaari melokaan la yoo xam ne képp ku ko meloo da ngay dugg ci biir melokaan yooyu nga xam ne yonte bi alayhi salatu wasalam tudd na ko léegi melokaan yooyu da cay jiital benn ndax dafa am solo lool ndax boobu léeg-léeg dafay nekk loo xam ne dafay ëmbale nit ñëpp parce que léegi melokaan yi yonent bi alayhi salaatu tudd am na ci yoo xam ni dafay delluwaat ci topp yàlla subhanahu wa taala ak jaamu ko te topp yàlla ak jàmm ko dafay nekk ci xol nekk ci làmmiñ nekk ci cër léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam li tudd ci ay topp yàlla ci biir xadis bi ñetti façon topp yàlla yooyu yëpp mi ngi ci ndax tudd na rajulun dakara allah xaaliyan fa ay aynaa nit koo xam ne dafa fàttaliku yàlla mu wét fekk dafa wét moom kese mu fàttaliku yàlla xolam daal di fàttaliku yàlla subhanahu wa taala mu dal di jooy ay bëtam jooy loolu kon liggéeyu xol la kon benn jaamu yàlla bu aju ci wàllu xolam bokk <coughs> naka noonu ba léegi tamit wàllu tudd yàlla subhanahu wa taala parce que foofu dikka zakarallaha xaaliyan mën na nekk zakarallaha mooy tazakkarallah mooy mu fàttaliku yàlla zakarallaha tamit mun na nekk mooy mu tudd yàlla subhanahu wa taala ci làmmiñam kon maanaam léegi benn baat boobu dina jël ñaari sens yooyu yépp ci boo ko ba ba tey tamit dina amaat beneen jaamu yeneen jaamu yàlla yoo xam ne ci cëram lay doon lu mel ne saraxe boobu mu saraxe ci cëram la ko defee dafa jël loxoom mu saraxe ba loxo nday joram sax li mu joxe loxo càmmoñam xamu ko kon jaamu yàlla yi nga xamante ne ci cër ak ci làmmiñ ak ci euh, xol yépp lay dellu gis nañ ko ci xadis boobu la naka noonu tamit am na ci loo xamante ni du delluwaat ci diggante nit ki ak boromam mais ci diggante nit ki ak mbindeef yi lay dellu loolu aussi am na ci xadis bi ci anam yu bari lu mel ne léegi jiit boo xam ne ku la loolu maanute googu diggantee man mbindee fii la ci bépp anam boo xamante ne anam maanute la wala koo xam ne dafay jël dara mu sarax ko ku ñàkk wala koo xam ne danga bëgg kenn ci sa xol ngir yàlla subhanahu wa taala loolu bëgg nga ko te bëgg gi nga ko bëgg ci sa xol la la delluwaat kon da ngay gis ne xadis bi ci boppam melokaan yi mu tudd daanaka ci bunt yu bari lay delluwaat ci bunt yu bari lay delluwaat léegi yonte bi alayhi salatu wasalaam jiital ci imaamun na mu ne njiit boo xam ne dafa maandu léegi aadil ismu faa'il la min al adl maanaa léegi dafa nekk tur ñu jëlee ko ci ak maandute maanaam turu ku maandute mooy aadil mooy ku maandu tayib léegi maandute ci boppam mooy nga def mbir bi la xamante ni mooy taatu amrillah aw itibau amrillah mooy nga topp mbiru yàlla subhanahu wa taala bi wadai kulli shay'in fi mawdiihi min gayri ifratin wala tafrit mooy léegi nga topp ndigalu yàlla subhanahu wa taala ci bépp mbir bu mu mën a doon ci nga teg ko ci place ba nga xam ne fa la war a nekk maandute maanaam léegi ñu déglu tekki bi bu baax léegi te mooy nga topp digalu yàlla subhanahu wa taala ci jël bépp mbir booy mënti di jëfandikoo wala nga koy jëflanteeg moom nga jël ko teg ko ci place bi nga ko war a teg doo ci ëppal doo ci yeesal loolu boo ko defee ñu ne kii ku maandu la léegi lépp loo xam da nga koy defati nga topp ci li la yàlla subhanahu wa taala digal mbir bi nga def ko comme ni nga xamante ne bi noonu nga ko war a defee mooy nga teg ko ci place am jële ko teg ko fudul place am parce que boo ko tegee fudul place am loolu tooñ la dulm la zulmu nag tooñ dafa bëri ay façon tooñ parce que tooñ ay façon ay la yu bëri yoo xam ne dañ ko koy dañ ko koy euh, tuddale mais léegi da ngay jël mbir bi nga teg ko ci place am doo ci ëppal doo ci yeesal ñàkk ëppal bi ak ñàkk yeesal boobu diggu doomu boobu loolu la ñu tuddee maandute léegi yonte bi alayhi salaatu salaam ne njiit boo xam ne dafa maandu léegi njiit bi ci jiitu mooy njiit bi nga xam ne dafay jiite jullit yëpp mooy al imaamul al al al uzma al imamatul mooy léegi njiit bi nga xamante ni njiit bi nga xam ne moo jiite jullit yëpp lu mel na nga ni al xalifa abou bakar as siddiq radiallahu anhu maanaam léegi njiit bu mel ne abou bakar as siddiq ñoo ñu mel noonu ñoom ñoo ciy jiitu ci dugg ci euh, xadis boobu nga xam yonte bi alayhi wax na ko te ñoom itam li tax yonte bi alayhi salatu wasalaam jiital loolu ci xadis bi importance bu mu am ndax ki nga xam ne moo jiite mbiru jullit yëpp la chaque ne kooku place bi mu yor ci l'islam bi mu occupé ci l'islam place bu am solo la te léegi bu dee ci buntu joxe exemple koo xamante ne bii dund na ci maandute ci njiite ba faatu fi jóge ci kaw suuf ñooñu la ñu war a jël comme exemple ci kaw nu ñu jiite woon jullit yi ci maandute goo xamante ne bii boo ko boo ko doon boo ko doon jàng di ko xoolaat da lay waar da jaaxal léeg-léeg ci doomu aadama boo xam ne kase la naka la mën a mele yenn melokaan yi fenlen boo jàngoon lu mel ne léegi jiit gi Aboubacar Siddiq jiite woon bindee fii jàmm nga xam ne wax nañ ne même bi muy faatu këram dafa waxoon nañ ko jaay pour fayee ko ay borom këram bi nga xam ne moom la bàyyi woon nga xamante ni daanaka ñoom seen dund dañu doon dund seen dund pour nit ñi la woon maanaa ñoom nit ñi daawuñ dund pour ñoom léegi nit ñi la jiitee léegi nit ñi ñoom ñooy dund pour yow ngay dund mais ñoom dañoo jëloon seen dund sacrifié ko ci nit ñi dund ak nit ñi mucc léegi loolu moom moo nekkoon seen jubluwaay ci seen jiite boobu ñu jiite woon te dañoo yëgoon ne responsabilité la boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo leen ko jox te dina leen ko laaj bu yomal xiyaame maanaam léegi moo waraloon ci ñoom ñu am maandute ba gën a tuuti ci gën a néew doole ci seen suufu njiit duñ ko tooñ mukk bu dara xewoon seen diggante ñoom ñaar dañuy jël mbir mi delloowaat ko ci ñi war a atte seen diggante ñu atte leen ñu ngi ciy nettali benn qissa allahu alam ba xam wér na wala wérul ci ali ibn abi talib benn mantoom boo xam ne dañ ne dafa réeroon mu gis ko ci benn juif bi mu ko gisee mu ne ko lii sama manto la man maa ko moom waaji na ko moomuloo ko wax ceeg moom ñu daldi ci jàppante léegi <coughs> ñu daldi yóbbu mbir mi ci kaw ki nga xam ne mooy atte bi ñu demee ñu laaj waa ji waa moom moom moomu manto ñu laaj ali ali ne moom moom manto bi wax dëgg yàlla day moom moo ko moom mais mënut a indi benn preuve buy wane ne waa ci moom la ko sàccee mais xam na ne moom alalam la moom moo ko moom ñu ngi nettali ci biir atte gi ñu doon atte waa bi daf ko lax da ko amirul muminin la ko wax maa léegi dafa jaar ci turam ne ko ñun jiitu jullit ci mu ne ko nag bul ma jox bul ma jox grade boobu sama tur parce que taxaw ma fii boobu ci boobu tur fi taxaw sama tur man personnellement pour attewu sama diggante ak loolu ay yenn misaal la ak ku mel ne Omar ibn al-Khattab nga xam ne da daan dox toog tëdd ba guddi muy wër ci biir ci biir dëkk bi di lijjanti koo xam ne tëdd na te xiif maanaam amul lu mu lekk mu tëddaa xiif boobu na la fanaanook moom yooyu yëpp da ko daan wër di ko nemmeeku dem na ci ba benn bis mu dégg ci ndaw soo xam ne jëkkëram dafa génn dem jihaad ji fi sabilillah te yàgg loolu mu namm koo gëj koo gis muy woyantu di ko jooytu Omar bi mu ko déggee ci la daal di nemmeekoon dëgg-dëgg mbiru jigéen ñi nga xam ne seen i jëkkër dañ leen di bàyyi di dem ci li ñuy wax ribaat mooy ñu ngi xam dañu daan takk seeni i dem ba ci ci frontières yi ñu kale foofu nekk fa di garde dëkk bi pour bañ ay noon ñëw daal di faagaagal jullit yi <coughs> loolu ay yenn exemple la yoo xam ne ci njiit boobu lay delluwaat mais njiit bi yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax fii borom xam-xam yi dañuy wax ne dafa yaatu maanaam léegi képp koo xam ne da ngaa jiite dara yow njiit nga ci kaw loolu léegi xadis bi dafay nekk loo xam dafay appliqué wu sa kaw bu fekkee maanu nga ci loolu nga jiite ak lu mu tuuti tuuti da ngay dugg ci ndigal boobu dig boobu nga xam yonte bi alayhi salatu wasalam tudd na ko ci xadis boobu moo tax yonte bi alayhi salatu wasalam doon wax ci benn xadis ne inna a muqsitina inda allahi ala manabira an yamini arrahman mu ne alladina yacdiluuna fi ahlihim fi fi xukmihim wa ahlihim wa ma wallaw ne léegi ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo maandu ñoom ñooy ñi nga xam dañoo maandu mu ne ñooñu day ca yàlla subhanahu wa taala yowmal qiyam dañuy nekk ci kaw ay place yu kawe yoo xam ni dafa nekk ci kaw ci leer lañ ko tabaxee mu ne ci la ñuy nekk te itam dañuy nekk ci ndeyjooru yàlla subhanahu wa taala yawmal qiyaam maanaam ci côté ndeyjooru yàlla subhanahu wa taala placé wu ñu teg leen ci ay place yu kawe yoo ay manabir la wax ay trône yoo xam ne ci leer lañ koy tabaxee mu ne ñi maandu mu ne yawmal qiyaam yàlla loolu la leen di teralee tay léegi li yàlla li yonente bi alayhi salatu wasalam wax foofu ne yaminullah aw yaminur rahman mooy léegi ndeyjooru yàlla léegi dafa am ci benn xadis mu ne wakilta yadayhi yamin mu ne léegi ñaari loxo yàlla yépp ay ndeyjoor la léegi borom xam-xam yi ñenn ñi ne loolu dañuy wax ne xaqiqa la yonent bi alayhi salatu bu ne ñaari loxo yàlla yépp ndeyjoor la dañ naan ñaari loxo yàlla yépp ndeyjoor la loolu ci jëmmam ju sell ji lay dellu mooy ne yàlla amul càmmoñ ndax li ndeyjoor gën a càmmoñ càmmoñ suufe moo tax yàlla subhanahu wa ci màggam ak setam ci lépp lu suufe moo tax melowul melokaanu càmmoñ moom yàlla subhanahu ndeyjoor rek la melokaanu tayib am ci ñoom ñoo xam ne dañ ne yàlla dafa am melokaanu càmmoñ ak ndeyjoor ndax bu dul woon loolu kon du am benn sens ñuy wax ne yàlla daf leen di jël teg leen ci ndeyjooram parce que bu boobaa du amaat benn sens précision boobu dootu ko jar ndax bu fekkente fépp fu ñu mën yàlla ndeyjoor la kon mu ne léegi particularisé ko ne léegi dañuy féete yàlla ci ndeyjooram dootul amati benn sens léegi ñenn ci borom xam-xam yi ñu ne loolu moo tax léegi li ñuy wax dañ naan yàlla subhanahu dafa am ndeyjoor am càmmoñ waaye ci ndeyjooram ak càmmoñam nu ñu kawee ak nu ñu amee ngëneel ak ni ñu màggee ñoom ñaar ñëpp màggaayu ndeyjoor lañ am donte ndeyjoor ak càmmoñ la mais amul gënante bu nekk ci seen diggante ba nga xam ne dañuy wax ne bi ndeyjoor la bi càmmoñ la moo tax yonent bi ne ñaari loxoom yëpp ndeyjoor la ci ngëneel lay dellu loolu mais bu dee ci réalité li am mooy ne am na ndeyjoor am na càmmoñ waaye ci ngëneel ndeyjooram ak càmmoñ yëpp ay ndeyjoor lañu léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñooñu nga xam ne daño maan mu ne ca yàlla subhanahu wa taala yowmal qiyam mu ne yàlla da leen teg ci ay place yu kawe yoo xam ne dañ koy tabax ak or dañ koy tabax ak leer parce que mu ne manabir min nuur ay trône yoo xamante ne ci leer lañ koy tabax mu ne ñu nekk ci ndeyjoor yàlla subhanahu wa taala mu ne ñooñu mooy alladina na fi xukmihim mu ne mooy ñi nga xam ne dañuy maandu ci seenu atte bépp atte bu ñuy mënti di atte léegi foofu atte du tekki rek nga toog ci tribunal nekk juge ay nit taxaw sa kanam nga leen di atte mbir booy mënti di atte ñu ñu askanele ko delloo ko ci yow ne ko atte boo ci maandoo da dugg ci wax jooju yonente bi alayhi salatu wasalam wax ne alladina yaadiluuna fi fi xukmihim mu ne ñi nga xam ne dañuy maandu ci seen atte mu ne wa ahlihim ak seen njaboot léegi ahlu ahlu rajul maanaam njabootu nit mooy képp kuy dellu ci moom di askanoo ci moom sa njaboot lañ moo xam danga leen a ci benn mbir yilif leen ci ñu ñuy di askanoo ci yow topp sa ginnaaw sa njaboot lañ moo xam da leen a jur ci sa deret sa njaboot lañ maanaam léegi njaboot dafay léeg-léeg am sens bu yaatu boo xam ne moom lañ koy jox dafay am sens bu yaatu boo xam ne moom la yonent bi alayhi yàlla subhanahu wa la wax yawma taqumu saatu adxilu ala firawna ashadda al adab yàlla subhanahu wa taala daf ne bis bi nga xam ne bisu penc day taxaw mu ne dugal leen waa kër firawna mbugal ma gën a tar ngeen dugal leen fa waa kër firawna foofu mooy képp ku ko toppoon ci weddi gi mu weddi woon yàlla subhanahu wa taala du rek ay doomam ak ay sëtam la abadan mooy képp ku ko toppoon ci ko kufur googu kon maandu ci say njaboot googu yonent bi alayhi salatu wasalam jox foofu dafa nekk sens bu large mu ne wama wallaw ak lépp loo xam ne ñoom dañ koo méngoo ñu féetewoo ko diriger ko lépp loo xam ne dañ koo jiite am ci sañ-sañ am ci dogal mu ne ñu ñooñu dañ see maandu kon léegi yonte bi alayhi salatu wasallam tudd na seen atte te loolu dafa généraliser lépp da ciy dugg bépp atte bu ñuy atte naka noonu yonte bi alayhi salatu wasallam tudd na ñëpp ñoo xamante ne dañuy askanoo ci ñoom seenu njaboot dañuy maandu ci ñoom tudd na itam maandu ci lépp loo xam ne dañ koo jiite bu boobaa léegi day daal di tëj bunt yëpp dafay nekk lu matale mooy ne kon da ngay dégg ne kon li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salatu wasalam wax ne imaamun aadil mooy njit bu jub foofu du rek nga ni président de la république wala nga ni ki nga xam ne mooy imaamu jullit yëpp mais képp koo xam ne yàlla daf laa jiital ci ci ay nit nga jiital leen méngoo seen i mbir da nga war a maanu ci ñoom bu fekkee tamit maanu ko ci ñoom ngir ragal yàlla subhanahu wa taala ak ngir xemmem xéewalu yàlla ak fayam da ngay dugg ci dig bi nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalam tudd na ko moo tax ibnu taymi rahimahullah al imam cheikh al islam dafay wax ne wax jooju yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax mu ne daf ciy dugg sax ba ki nga xam ne dafay jàngal ay xale ci daara day jàngal ay xale ci daara mu leen di jàngal alxuraan di leen jàngal fer iji di leen jàngal bind di leen jàngal liir mu ne mu sant leen benn genre composition léegi jox leen ay exercice ñu bind bi ñu bindee ba pare mu leen di corriger mu ne ci biir correction boobu maanaa léegi loolu nga xamante ne bi bind nañ ko ba pare ci liñ waroon a def comme examen mu leen di muy daal di corriger nag léegi seen exercice yooyu mu ne même kooku maanduteem day dugg ci xadis boobu maanduteem ci diggante élèves yooyu nga xam ne ay xale yu ndaw la ñuy jàng ci moom ci daaraam jooju mu ne dafay dugg ci wax jooju yonte bi alayhi salatu wasalaam wax ne njiit njiit boo xam ne dafa maandu njiit boo xam ne njiit bu maandu la kon loolu dafa nekk loo xam ne lu yaatu la loo xam ne dañ tënk rek ci njiit boo xam ne dafa jiite julli yépp wala koo xam ne dafa jiite pays wala yooyu mais léegi li muy def mooy dafay jéem a ragal yàlla subhanahu wa taala ci bu fekkee dafa jiite ay nit méngoo seen i mbir mu jéem a xam lan mooy maanute mu ciy dox ndax maanute li ñu waxoon mooy ngay topp mbir ndigalu yàlla subhanahu wa taala ci mu nekk nga teg ko ci palaasam doo ci digg da nga ciy digg doomu doo ci ëppal te itam doo ci yeesal loolu nag dafa jafe parce que léeg-léeg nit say sentiment dafay jeexital ci yow loolu benn la ñaareel ba tamit mooy léeg-léeg boo nekkee njiit dafay am ay nit yu du lay sës yoo xam ne dañuy am ci yow influence maanaam am ci yow jeexital goo xam ne dañ koy jeexital ci yow ci léeg-léeg sa décision yi te loolu bu fekkee nekkul nit ku ñor loolu nga leen di sóoraale de trop léeg-léeg mën na indi nit ki di jeng ci yenn mbir yi parce que dañ ko ci xaw di influencé te loolu jafe na ci trop ndax léegi lu ko waral mooy day am nit ñoo xam di nga xaritoog ñoom miinanteeg ñoom foo xam da dem ba da am tuuti seen kersa da ngay am seen faiblesse léeg-léeg day jafe yenn mbir yi ñu exposé la ko proposé la ko wala ñu wax la ci yenn gisin yi te doo ci jeexitalu loolu dafa jafe trop moo tax léegi nit dafay dem fexe saa bu nekkee bu fekkee bëgg na yàlla dimbale ko ci mu maandu ci mu jiite mu ut ñoo xam ne ñu mu lay tuddee ahlu shura ñoo xam ne ñoom lay diisool ci lépp lu muy def da leen di tànn ci biir ñi nga xam ne ñoom la jiite xool ñi nga xam ne yàlla may na leen ci wàllu xam-xam ñu xam-xam-xam bu set ak yàlla may na leen ci wàllu xalaat ak xel bu jub bu rafet muy jariñu si ñoom ci seen i xalaat bu amee yenn mbir yoo xamante ne gaar na ko mu dajale leen exposé leen ko laaj leen ci seen xalaat diisoo ci ak ñoom bu paree mu bàyyi leen ñu dem mu toog xalaat jël décision finale fi mu toog nga xam day diisoo ak ñoom dañoo war a discuter ba gis benn sujet bu benn benn solution boo xam ne ko fay jël sur place loolu maa exemple nekkul loo xam ni dafa nekk lu obligatoire maanaam léegi mën na leen laaj ba wax ko xalaatam seen xalaat ba pare mu na leen jazakumullahu xayran insarifu ala barakatillah maanaam léegi tasaaru leen ngeen dem jazakumullahu xayran léegi moom bu wéeteeg boppam ginnaaw bu mu ñaanee yàlla def ay sixaaram mu xool lan moo ko gën a convaincre ci yooyu nga xamante ni nit ñi gaaral nañ ko ko ci seen wàllu xalaatin mu jël ci génn ci benn benn décision boo xam ne moom lay moom lay léegi kon ci gàttal loolu daal dafa am ay ay fàttale yoo xam ne dañ ko ci fàttale mooy ne léegi loolu sax dafa waroon mujj ci xadis bi bu ñu demee ba xadis bi jeex ñu def ci fàttale yooyu mais damay bañ fàtte ko léegi loolu bokk na ci mooy yonte bi alayhi salatu wasalaam melokaan yi mu tudd góor ak jigéen ñoom ñoo ci yem du caagante ni wax ba muy wax naan masalan rajulun rajulun waa joo xam ne waa joo xam ne du caagante ni ak ab waay rek la ci namm mooy góor non mais melokaan yi même jigéen bu ko melowoo day dugg ci même atte bi mooy même yool bi nga xam yonte bi alayhi salatu wasalaam tudd na ko da koy am kon wax ji melokaan la mais na mu ci benn xeet ci nit ñi mooy góor wala jigéen ku ko ci meloo da ngay dugg ci digg boobu ba mu des nag bu fekkante ni dañoo jox imaamun aadil muy njiit bu maanu dañ koo jox sensu njiit bi nga xam ne mooy jiite jullit yi nekk seen njiit bu mag loolu moom bu boobaa la bu boobaa góor rek moo koy jagoo mais jigéen du ko mën a doon kon ci foofu la distinction di am maanaam léegi séparation ci lay amee diggante góor ak jigéen mooy bu fekkee dañoo jox sens imaamun aadil njiit boo xam ne bu maandu la ñu ne mooy jiit bi nga xam ne dafa jiite jullit yi yépp nekk seen imam loolu jigéen du ko jigéen du ko jiite góor moom moo koy jiite naka noonu tamit am na ci yeneen yoo xamante ne bi ci àggee xëy nañ ko lu mel ne masalan yonte bi alayhi salatu wasalam li wax ne wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masjid aw bil masajid waa joo xam ne xolam dafa taqoo ak jàkka yi loolu ci góor lay gën a nekkee ngëneel ko ci jigéen ndax jigéen yonte bi daf ne wa buyutuhunna xayrul na maanaam seen kër yi bu dee ci wàllu julli rek jigéen julli ci këram moo gën ci moom mu julli ci ci jàkka ji te itam foofu la yoolam gën a gën a réyee kon léegi nit xolam takkoo ak jàkka ji mu nekk ci moom ay yool ak ngëneel loolu ci góor la lañ koy gën a mën a jëmale ko ci jigéen ndax jigéen moom mu julli ci këram sax ci këram moom moo gën ci moom fuuf muy dem ci jàkka ji loolu ay xadis yu wér moom moo ci ñëw bi ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam léegi kon bu dul loolu bu dul bu dul loolu dañuy wax ne kon yeneen yi ci des yëpp góor ak jigéen ñoom ñoo ci yem balaa ñuy sori ci xadis bi léegi ñaareelu melokaan bi yonte bi alayhi salatu wasalaam ne wa shabun nashaa fi ibadatillahi azza wa jalla mu ne ndaw boo xam ni dafa màgg ci jaamu yàlla subhanahu wa taala nashaa fi ibadatillahi azza wa jalla am na ñoo xam ne am na ci yenn riwayat yoo xam ne daf ne wa shabun nashaa bi ibadatillah maanaam léegi ndaw loo xam ne dafa màgg màgg ci kaw ci jaamu yàlla la màggee maanaam jaamu yàlla la def ba màgg am beneen bi nga xam daf ne fii ibadatillah mooy dafa màgg ci biir jaamu yàlla maanaam ñoom ñaar ñëpp même sens bi la am même tekkin bi la am mais am na tuuti différence ci lafz bi ni ñu ko riwaaya ci bi riwaaya ak ni ñu ko riwaaya fii parce que bii daf ne fii ibadatillah bii mu ne bi ibadatillah azza wa jalla léegi ndaw loo xam dafa màgg ci jaamu yàlla subhanahu wa taala ak topp yàlla subhanahu wa taala léegi lan moo tax mu am gëneel bii te mag amu ko xëy na ndax léegi dafa tudd ndaw kon bu tuddee ndaw loolu kon day wan ne ndaw yonte bi alayhi salatu wasallam daf koo seppi jox ko ngëneel bi ci kaw xal ci kaw mag léegi li ko waral borom xam-xam yi ñeneen li ko waral mooy ndaw ci boppam dafa bari ay tentation parce que léegi ndaw bu nekkee xale àdduna da koy xëcc seytaane daf koy xëcc lu bari daf koy soxla daf koy xëcc te itam wàllu wàllu bànneex ak mën a topp sa bakkan maanaam bànneexu bakkan ci ndaw lay gën a amee doole ko ci mag ndax ndaw bu tollee ci ci jeunesse am bànneexam mu koy sonalee ak nu mu koy xëccee bakkanam di ko xëcc xëy na bu nekkee mag ci lay gën a mën a amee maîtrise ci boppam que bu nekkee xale léegi ndaw loolu nga xam ne yooyu yëpp dafa nekk ci kanamam di ko gaar nekk mbir yu yu jafe yu jafe mucc mu xeex ak bakkanam xeex ak seytaane xeex ak àdduna loolu yëpp mu sacrifié ko ci kaw topp yàlla subhanahu wa taala di ko jàmm ba màgg ci loolu yàlla subhanahu wa taala dugal ko ci xéewalam yowmal qiyaama wala chak parce que loolu ku ko def di nga di nga mérité yoolu yàlla subhanahu wa taala ndax léegi ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox ko comme xadis boo nga xam ne xadis xasan la yonente bi ne man taraka shay'an lillahi awadahu llahu xayran minhu képp ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla daal di koy utalal loo xam ne moo ëpp loolu foofu gën ko képp ku sacrifié wu tey sa bakkan yar ko ci bànneexu àdduna yi nga xamante ne yu yu yu digg doomu la xaw ma éphémère la ñuy wax xaw ma mooy luy jàll la léegi nga xam ne nit ki bu ci nekkee sax quelque temps rek daal di commencé di di ko réccu ndax nit koo xam ne da topp sa bànneexu bakkan fii ci kaw suuf yaruloo sa bakkan topp ko rek topp àdduna li ci ëpp balaa ngaa dee da nga koy rëccu balaa ngaa dee da nga koy rëccu ndax sa mujj du nekk mujj bu baax waaleykum salaam léegi bépp ndaw boo xam da ngaa def sacrifice def li ñuy wax as sabr ala taatillah mooy nga muñ sa bakkan nga tëj ko maanaam léegi tëj parce que sabr mi ngi tudd mi ngi tekki alxabs mooy nga tëj benn mbir emprisonné ko léegi nga emprisonné sa bakkan tëj ko ba mu topp yàlla subhanahu wa taala nga tàggat ko ci kaw topp yàlla tëj ko empêché ko dox ci digganteem ak yi nga xamante ni neexul yàlla subhanahu wa taala léegi sacrifice boobu nga def ak yu bon yooyu nga xam ne yàlla subhanahu wa taala yàlla maanaa léegi nit ñi di def luy bon yu xaraam yi yàlla xaraamal ci ñun du caagante ni par exemple bu ñu ko defee day wàññi yàlla dara moo tax mu tere ñoo léegi nit doolu da ko war a bàyyi xel bu baax ci bunt boobu moo ne léegi yàlla bu ne ñu bu leen njaaloo bu leen naan sàngara bu leen def lii bu leen def lii du càggante ni boo jëlee butéelu sàngara bi naan ko day wàññi yàlla lenn da koy wàññi nguuram wala dafa am benn affaire bu bu bu bu ko ci fekk ci loo xamante ni bii du ko wàññi dara yàlla subhanahu wa taala mais yàlla dafa ñu koo def ngir lan ngir nattoo ñu ko ak itam ngir am na doxalin bu jub boo xam ni moom la ñu sant ne nañ ko ko doxal fii ci kaw suuf te loolu ñu suñu ngëneel moo ci nekk fii ci àdduna ak alaxira léegi yàlla natt boobu ñu natt mooy daf ñu éprouvé ci mbir yooyu te mbir yooyu ci bari bakkanu doomu aadama daf koy bëgg tayyib léegi yàlla ne la bul ko def ngir man am yu bëri yoo xam ne sa bakkan day diis ci moom yàlla ne la nanga ko def ngir man léegi nag affaire bi nekk sa diggante sa bakkan ak yàlla léegi ñoom ñaar ban ngay jox priorité ban ngay jël jiital ko ci kaw moroomam léegi foofu la mbir mi nekk dëgg-dëgg mooy examen bi foofu la nekk foofu la yàlla di examiner mooy yàlla moo la moom moo moom sa bakkan léegi moom am na lu bëri lu sa bakkan bëgg mu ne la bul ko def am lu bëri loo xam ne sa bakkan bëggu ko mu ne la na nga ko def na ci yar sa bakkan def ko ngir man tayib léegi ñoom ñaar koy topp loolu moo tax mu jafe mu metti tayib léegi loolu nit ki fokk mu xeex ak bakkanam léegi pour taxaw ci ba pare xam ne itam yàlla daf ko ko def ngir nattoo ko ko loolu parce que yàlla daf ne inna ja'alna ma ala al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala yàlla subhanahu wa ta'ala daf léegi li nekk ci kaw suuf ñun ñoo ko fi def mu nekk comme taar maanaam léegi pariru la taar la ci kaw suuf ngir yàlla subhanahu wa ta'ala nattu mbindeefam yi kan ci ñoom mooy rafetal ay jëfam ah léegi dafa jël suuf mu décorer ko ba mu rafet mu wàcc fi doomu aadama yi ne leen rafetal leen seen jëf ngeen topp ma toppin bii léegi loolu genre éprouvé la la yàlla subhanahu wa taala daf bindee fi da leen a da leen mooy da leen a nattu ci kaw mbir yooyu la léegi nag koo xamante ni bi da ngaa xam mbir boobu wa amma man wa amma man ittaqa aw wa amma man xa wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an il hawa léegi koo xam ne léegi yow da ngaa xelu nga xam ne yii nga xamante ni moo nekk ci àdduna bi ay mbir yu ñàkk fayda la yoo xam ne day da ngay dee bàyyi ko fi mënoo ee mu ko continuer ci sax ci te itam maanaam fii jàlluwaay la boo xam yàlla da la fay jaarale ci kaw suuf ngir nattu la ngir say résultat ñu fay la ko yomal xiyaama te xam nga yomal xiyaama lan moo la fay xaar léegi kon àdduna du la jaral mukk ngay sacrifier sa sa li nga xam ne mooy sa mujj mu yomal xiyaama léegi sacrifice boobu ngay def bàyyi yooyu la chaque boo ko defee boo dee yàlla subhanahu wa taala dina la fay lu gën fuuf loolu nga xamante ni bi moom nga bàyyi woon ngir yàlla subhanahu wa taala tax loolu foog nit ki am teewlu yàlla su fi xolam di teewlu wat dëgg-dëgg yowmal qiyam gëm ko dëgg yaqinan pour mën a am boobu yëg-yëg ci xolam ne man lii nga xamante ne bi mooy mbiru àdduna yi jaralu ma mukk may sacrifier sama àllaaxira te loolu leen même nit ki sa mbiru àdduna da koy gis doo nangoo mukk gis ne par exemple sa liggéey bi ngay liggéey wala sa commerce bi ngay commerce di nga ci nangoo sacrifier loo xamante ni ci la say intérêt nekk ci loo xamante ni say intérêt nekku ci léegi yow ni nga ko ni nga ko bañee ci sa wàllu àdduna noonu nga ko war a bañee ci sa wàllu àllaaxira léegi nag ndaw nga xam ne dafa nekk étape boo xam ne étape bu jafe la nit ki pour mu maîtriser ci bakkanam ak li nga xamante ni moo koy tànt lépp ci wàllu àdduna ndax yonte bi alayhi salatu wasallam daf ne inna dunya xulwun xadira wa inna allaha mustaxlifukum fiha li yandura kayfa taamaluun fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnati bani israil kanat fi nisa léegi yonte bi alayhi salatu wasalaam daf ne àdduna dafa nekk lu neex léegi ñaari façon neex moo am daf ne léegi àdduna dafa neex dafa rafet benn neexin bi ci làmmiñ la bu ko nit ki ñamee ci làmmiñam dafa neex ci làmmiñ mu ne àdduna dafa neex neex boobu mu ne xadiratun dafa nekk loo xam ne itam dafa rafet ci bët bu ko nit ki xoolee bu ko nit ki gisee dafa koy xemmem léegi lekk bépp palaa boo xam ne ñaari mbir yooyu da cee dajaloo nit ki da koy bëgg mooy plat boo xam ne dafa rafet ci boo ko xoolee da nga koy xemmem boo ko lekkee itam mu mais plat bi léeg-léeg boo ko lekkee mu neex mais boo ko xoolee dina ñaaw ñaawaay boo xam ne doo ko sax bëgg a lekk donte xam ni lii boo ko lekkee dina neex mais du nekk lu présentable wala mu nekk lu présentable mais boo ko lekkee du neex ñaar yooyu yépp bu ci manqué la plupart day nekk lu manqué lu matadi mais bu fekkee ñaar yooyu dañ cee daje day nekk plat boo xam ne doomu aadama bakkanam da ciy xëccu di ci jëm yonente bi mu ne àdduna noon la mel léegi mu ne nag fa inna allaha mustaxlifukum fiha yàlla daf leen fay wàcce wutal leen ci kaw àdduna fa yandura kayfa taamaluun ngir mu xool naka ngeen di jëfee naka ngeen di doxale maanaam léegi yàlla wàcce bi wàcce fii ci àdduna ngir éprouver ñun dong la xool naka la ñuy jëfee mais du fii mooy suñu jubluwaay maanaam suñu destination ñun du fii fii du destination finale jàlluwaay la moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam daf doon digal benn waay ne ko kun fi hadihi dunya ka annaka garibun aw abiri sabil ne ko na nekk ci àdduna bi mel ne koo xam ne da ngaa ci ab dëkk xamuloo fa kenn kenn xamula fa kooku moom du tala nekk di lijjanti lu bari ci dëkk boobu maanaam lu bari du ko fay itteel ajoom rek la fay lijjanti soxlaam bu lijjanti mu dem yoonam wala koo xam ne sa abiri sabil dafay jéggi daa nekk ci yoon day dem nga xam dafa def escale rek di dem yoonam kooku lijjantiwul kër gu rafet lijjantiwul oto kooku yu bari du ko soxal ci dëkk boobu parce que dafa am dafa am def fa passage di jàll rek mais foofu jug euh, taxu koo jug a foofu juglawu ko foofu du jubluwaayam feneen moo ko tax a jug mu ne nag na nga mel noonu ci àdduna bi léegi nit bu amee boobu gisin ci àdduna ne fii sama jaaruwaay moo tax yonte bi alayhi salatu wasalaam ne man de seen àdduna bi ni ma ci mel mi ngi mel ne benn waay bu war war waayam di dox di dox di dox di dox ba naaj bi tàng lool mu sonn mu taxaw ci benn taatu garab di noppaliku rek mooy taxaw boobu muy taxaw di noppaliku pour continuer yoonam dem yoonam mu ne man seen àdduna bi noonu laa fi léegi nit boobu boobu yëg-yëg la war a am ci dund bi ñu dund fii wallahi bu fekkee am nga boobu yëg-yëg lu bari du loo ko jaral tayib léegi yonte bi alayhi salatu wasalaam lan la wax mu ne léegi yàlla daf leen utal ci àdduna bi ngir mu xool naka ngeen di jafe fa yanzura kayfa taamaloon foofu da fay déggee buntu éprouvé boo xam ne yàlla subhanahu wa taala éprouvé na ko doomu aadama yi muy daf leen nattu ci seen doxalin seen jëfin seen lépp yàlla subhanahu wa taala daf leen ci nattu te loolu nammeelug yàlla la moom subhanahu wa ndax dafa am beneen beneen destination boo xam ne ñun foofu lañ jëm foofu lañ ñuy xaar foofu liñ dund fii loolu lañ ñuy lañ ñuy fayfale li ñuy dund fii mooy jëmmal yowmal qiyam tey léegi yonte bi alayhi salatu wasalaam lan la ci teg daf cee teg ay conseil comme que léegi yàlla def na loolu wàcce ñu fii mu ne maa ngi leen di moytandiku loo ay mbir mu ne fattaqu dunya na ngeen moytandiku àdduna na ngeen moytandiku àdduna mooy lépp loo xam ne wàllu àdduna la du mbiru diine mbiru yàlla mu ne na ngeen ko moytandiku fattaqu dunya wattaqu nisa na ngeen moytandiku jigéen loolu ñaari buntu la yoo xam ni la plupart ku faqastalu ci nga jaar mbiru àdduna léeg-léeg nga gis nit yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan la wax daf ne woon seen ginnaaw am na ay fitna yoo xam ne dafa mel ne ay guddi yu lëndëm crise kenn du gis fooy teg sa tànk maanaam léegi mu ne ci saxaaba yi la ko doon wax ne ko seen ginnaaw rek lii di ñëw ci ay fan tuuti rek am na ay fitna yuy tegaloo yoo xam ne day mel ne ay guddi yu lëm lëndëm crise guddi yooyu nga xam ne day jékki-jékki lëndëm di taw ci guddi yi jant bi asamaan si lëndëm ñuul kukk nit boo xoolee sax doo xam fay teg sa tànk mu ne ay fitna yu mel noonu mu ngi ñëw ci seen ginnaaw mu ne nit dafay xëy nekk jullit ngoon mu nekk yéefar nit ngoon mu nekk fekk ko mu nekk yéefar bu xëyee nekk fekk bu ngoonee fekk ko mu nekk jullit bu xëyee fekk nekk na yéefar bu yàgg yonentu bi mu ne yabiu diinahu bi aradin min dunia mu ne ndax dafay jël diine mu jaayee ko poñetu àdduna maa léegi bi mu waxee ne nit dina xëy nekk jullit fitna fitnay tar yooyu nit dina ci xëy nekk jullit ngoon rek fekk ngëm yàlla am dem na bu yàgg génn na ci lislaam te yëgu ko wala ngoon gi fekkoon ko mu nekk jullit xëy fekk lislaam bi dem na bu yàgg kufru moo fi nekk wedd yàlla moo fi nekk lan mooy cause bi mu ne jël diine mu jaayee ko at jëndee ko àdduna yabiu diinahu bi arabin min dunya léegi àdduna ci boppam buntu la boo xam dafa mën a jeexital ci nit léeg-léeg bu la yàlla subhanahu wa taala tijjilee àdduna da nga war a yëg ne lii nattu la moo tax ñàkk nattu la am nattu la te mujj jamono ñaar yooyu yëpp dafay bari ñàkk day bari am dafay bari ñaar yooyu yëpp tim yàlla daf ci nattu nit ñàkk dina nekk nattu léeg-léeg nit ki saalit ñàkk diineem am dina nekk nattu tamit nit ki bew ñàkk diineem loolu yëpp ay bunt la yoo xam ne seytaane daf ciy jaar nit xëcc ko fexe ba daal di daal daal di sàcc diineem këf ko yóbbu moo tax léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf leen doon saxaaba yi naan leen man li ma leen tiital de mooy yàlla subhanahu wa taala tijjil leen àdduna comme nu ko tijjiloon ñi leen jiitu woon ngeen koy xëccoo ci seen biir comme ñoom ni ñu ko doon xëccoowee te mu ne ba ngeen ko defee rek àdduna dina leen alak comme noonu noonu alagee leen jiitu dana leen alak yaa axi parce que léegi dina tuur seen deret di ngeen yàq seen diggante di ngeen jaay seen diine di ngeen jaay seen ngor di ngeen jaay seen ma ngir rek xëccoo àdduna léegi ci kaw loolu la yonte bi alayhi salatu wasalaam waxee ne na ngeen moytundiku àdduna mu ne na ngeen moytundiku jigéen wallahi jigéen bokk na ci buntu yi nga xam ne bu la fa seytaane jaare rek da nga ñàkk sa diine même bu fekk tey li ñuy wax du waxu koo xam ne par exemple ñi ciy namm mooy comme ni ñenn ñi di def mooy léegi di wax di jëplu sa sa wax yépp nga mel na ku setal sa bopp ba set ba mat sëkk yow di ko jëmale nit ñi ci mbedd nekk li ñuy dund ci ci société bi nga mel ne kuy xas nit ñi social population bi li ñuy def ak télévision beeg yooyu ñun loolu tax ñoo wax li may wax maa ngi ci jublu ki jiitu mooy ki nga xam dafa bëgg xencu yoon bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaaroon ak ay saxaabam kooku moom moo jiitu ci gën a moytandiku ak ragal mbir yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ko ci xadis yooyu moo tax boo déggatee genre xadis yu mel noonu jël ko nga jëmale ko ci sa bopp balaa nga koy jëmale ci nit ñi léeg nit ki day dem ba contre waru moo koy dal seytaane da koy da koy jey wan ko ne ko yow jub nga ba pare jubbanti bu nga yaa ngi dund sunna léegi multazim nga kon yi ñuy wax ni du yow la concerné daal bu yonte bi di wax naa na ngeen moytu àdduna moytu jigéen loolu mi ngi ci namm gaa yi dem di baali ji di caaxaan di naan ay sàngara affaire yooyu mais wallahi yow boo so yaa ci njëkk dugg ci xupp boobu yonte bi alayhi salatu wasallam doon xupp daf ne na ngeen moytundiku àdduna na ngeen moytundiku jigéen même yow mi nga xamante ne da ngay dund diine di góorgóorlu yow sax soo matul yow seytaane li muy sonnee ci yow ci sànq la ci bunt boobu sonneew ko ci ñeneen ñi ci des ñi nga xamante ne diine nekkul ci ñoom te loolu kenn ku nekk ci ñun bu ko xoolee ci boppam daf koy gis mooy na seytaane découragé wul mukk ci yow ci sànq la ba léegi te yow tamit yëg-yëg boobu nga war a am ci sa xol foo mën a toll jéem a parce que jigéen dafa mën a jeexital ci yenn nit ak ku mën a doon même yow mi nga xam ne dangay toog di wax ak nit ñi leen waar di jàngale nit ñi di la xool di am rafet njort ci yow di séntu ci yow diine wa rabbil kaaba boo moytuwul jiine jigéen day jeexital ci yow jeexital ci sa yéene te doo ko sax yëg parce que góor moo mel noonu de nature dégg nga léeg-léeg nit ki day sentir benn genre faiblesse bu muy am ci digganteem ak jigéen ñi même jigéen ñi nga xamante ne fii diine moo leen moo leen lëkkale moo leen moo leen moo leen séq yéen moo dox seen digganteeg ñoom léeg-léeg boo moytuwul sa yéene mën na yàqu ci seen sabab parce que mën nga leen jox lenn ci sa yéene xëy na yow lu bari li ngay def nii ñoom jox nga leen suuraale nga leen ko ci loolu mooy tandikuloo jigéen yaa ak léeg sa digganteek ñoom ci ni ngay jëflanteeg ñoom mën na delluwaat ci bunt boobu mën na delluwaat ci bunt yu bare bare bare bare bare ci diggante lu dox diggante relation ak góor ak jigéen même ci ñiy dund diine laa wax de waxatuma la nag waxatuma la nag léegi ñi nga xamante ne bi ñoom dunduñu diine ñooñu moom ñoom ñoo rawati ci buntu boobule kon nit ku nekk da ngay jéem a fexe nga góorgóorlu moytandiku li nga xam ne mooy jigéen dafa am benn jaamu yàlla boo xam ne yonte bi alayhi salatu wasalaam moom moo ko nettali mu ne waa ji daf doon lan mooy lan mooy samantin fiiru courant bi la wala fiiru léegi yonte bi alayhi salatu wasalaam dafa nettali benn jaamu yàlla bu jaamukatu yàlla bu mag boo xam ni daf waa ji daf daan jaamu yàlla ci xeet yi njëkkoon léegi day julli rek di jaamu yàlla am benn place am boo xam daf ko tabax jagleel ko rek nekk fa di jaamu yàlla subhanahu wa taala nee na léegi yaayam di ko benn bis fekk ko muy julli mu dal di ne yow yàlla sama julli ak sama yaay maa ngi julli sama yaay woonam léegi muy hésité ci ñaar yi ban la ci war a dem fekk ci xolam mayu ko mu bàyyi julleem mu continuer ci biir julleem boobu wuyuwul yaayam yaayam woo ko wuyu ko mu continuer ci julleem beneen yoon mu defaat loolu bi mu demee ba loolu xaw a bari ci moom yaayam xolam am lu mu yëg ndax sa doom nga koy woo mu nekk fenn di jaamu yàlla wuyuwu la te yow da nga koy soxla parce que sa doom am nga ci moom benn àq yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne bi bi mu defee loolu yàlla subhanahu yaayam daal di koy ñaanal ne ko yàlla na la yàlla wan kenn ci jigéen ñi balaa ngay faatu mooy yàlla na la yàlla wan pexewu jigéen balaa ngay faatu pour léegi yàlla nattu ko ci loolu loolu la ko ñaanal muy ñaan bu oyof te yonent bi neen bu ko ñaanaloon lu ëpp loolu dina ko dal ndax wàquwe ak waajur dafa nekk lu fort ci doomu aadama ayib léegi bi nga xamante ni léegi waa ji moom waa dëkk bi ci boppam amuñ ci moom benn pexe daneen jaaxal ci xamuñ fu ñu koy jaar ci jaamu yàlla subhanahu wa taala jigéen ñi dañ koy ut amuñ ci moom benn pexe ndax fa mu nekk di jaamu yàlla boo fa demee sax doo ko gis day yëg ci benn place boo xam ne moom moo ko tabax fa lay nekk di jaamu yàlla tey benn jigéen boo xam ne daf koo sàkk woon ci jigéen ñi taxawaalu doxkat yi la bokk waa ji bañ xaalew ko jaamu yàlla mu dem gis benn sàmm boo xam ne day sàmm ay gétt mu dem njaaloo ko moom bi mu njaaloo dem ba am doom indi ko ci dëkk bi ñu ne ko yow foo jëlee sa doom bi mu ne leen waa jooju di jàmm yàlla moom moo ko ko moom moo ko moom moo jur doom bi tayib waaleykum salaam wa rahmatullah léegi bi mu waxee loolu waa dëkk bi ne ah am nañ occasion nag xam nga léegi nit ñi la plupart buñ taqee duñ bëgg ku set ku nekk seen wet léegi yow la plupart boo nekkee nit koo xam ne ñoom dañu lay def ay dañ lay tànte di la ut chaque jour ci yenn yu bon yow nga mucc ci wan leen ne man li dama koo seexlul sama bopp nga set jub di jaamu sa diine di kii dañu am ci yow jalousie mooy dañu lay fiire ci li nga nekk li ñuy bëgg rek mooy taqal la lu ñu mën a am ba taqal la rek dañ koy exploiter du ñu sax xalaat ak xelu ndax yow dëgg-dëgg yow xamee nañ la di wala déedéet mais dañuy bëgg rek lu ñu maa dañuy bëgg rek nuróo nuróog yow léegi kenn dootul am lu mu lu mu wax moroomam tayib léegi waa dëkk bi daal di riiree foofu rek ne ah, waajaa ngi léegi moom fii la nekkoon di tànqal nit ñi yàlla jaamu yàlla moom moo def kiréwaale daal di jël seen yar ak seen i ci ak lu ñu ku ne jëlee fële daraam ñu waa ko dem fekk jiwaay ji fi mu nekk biñ ñëwee ñu daal di tàmbali fekk tabaxam bu mu tabaxoon daan fa jaamoo yàlla mu nekk benn mbaar boo xam ne bu doyee di la ñoo commencé koo màpp biñ tàmbalee màpp rek mu dégg ko daal di wàcc fi mu nekkoon ñëw ne leen lan la ñu ne ko yow sa coow lu rëy bi ngay nekk fii di tànqal nit bis bu nekk naan dangay ngay jaamu yàlla ndakate yow yaa def garaawale ji léegi li nga def ñu ne noo ko mënee mu daal di ñëw ne xale bi kuy sa kuy kuy sa bàyyi kan moo la jur xale bi na ko sàmm ba ma jur xale bi na ko liir la mu ne ko sàmm ba ma jur yàlla subhanahu wa taala seetal ko ci loolu nga gis ne même jaamu yàlla bi nga xam ne te loolu bokk na ci li borom xam-xam yi wax te loolu lu wér la moo ne ñetti liir ñoom mu sa wax liir boobu nga xam ne moo waxoon ci setal jàmm yàlla boobu le ak liir bi nga xam ne mooy Isa ibn Maryam bi mu nekkee ci euh, berceau yaayam subhanahu wa yàlla yaayam yàlla subhanahu wa defal ko mu wax di ko di ko xeetam laajee xeetam bi ñu laajee Mariam annaa laki haada maanaam léegi yow foo jëlee doom jii nii yow dañ ne ko ma kaana abu mra saw in wa ma kaanat ummuka baxiya maanaam sa papa nekkul woon nit ku bon te itam sa ndey nekkul woon njaalookat léegi foo jëlee doom ji fa asharat ilayhi mu joxoñ ko bi mu ko joxoñee Isa ibn Mariam daal di wax fekk mi ngi nekk liir mooy ñaareel ak xale bi nga xam ne moo nekkoon ci asxaabul uxduud ñooñu nga xam ne dañoo gëmoon yàlla buur bi di leen lakk benn xeet boo xam ne ñu gëmoon yàlla buur bi ñu jamonoontaloon doon leen taal safara wu rëy di leen ci dugal bi ñu leen ciy dugal am benn jigéen boo xam ne ci ñu gëmoon yàlla ñooñu la bokk mi ngi boot doomam bi mu ñëwee ba jóg safara bi mu tiit dal di hésité bokk na ci li ko gën a tiitloo doomam ju ndaw ji nga xam ne biir bu ndaw bu tooy xepp la te mi ngi ko boot bi mu nee ngir dellu ginnaaw doom dina ko yàlla yaay demal yow yaa nekk ci dëgg dugal ci biir safara bi mu daal di dugg ci biir safara boobu ñetti liir yooyu ñooy liir yoo xamante ne bii mos nañoo wax ci histoire léegi kooku li ngay déggee ci xadis boobu nga xamante ni li yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax na ko léegi da ngay gis ne waajooju ak baaxam googu mu noon jaamu yàlla yépp muccul sax ci pexeb jigéen ci anam bi boo gisee yusuf alayhi salaatu wasalaam jigéen taxal na ko ñu tëj ko ci prison bi ay ati at di sababi jigéen ci ay seen pexe yoo xam ne defoon nañu ko te bu ko yàlla setalul woon dinañ ko taqal taqal bu gën a garaaw boobu ndax bu boobaa njaaloo lañ koy juumal tuumaal mais yàlla subhanahu wa ta'ala setal ko ci njaaloo bi daal di koy bàyyi ñu dugal ko ci prison bi ngir moom coobareem ak mbir boo xam ne namm na ko moom yàlla subhanahu wa gis ne kon nag mooy tundiku jigéen mbir la bu doy waar boo xam ne ku nekk war nga ci mooy tundiku rek rawatina ndaw boo xam ne da ngay jug di xeñtu yoonu yàlla subhanahu wa taala bëgg a yar sa bopp tàggat sa bopp ci ne da nga bëgg am melokaanu ndaw lu jaamu yàlla ba màgg ci jaamu yàlla boobu bokk na ci li lay gën a gën a gën a gën a gën a jeexital ci yow muy àdduna ak wàllu jigéen parce que sa bakkan dafay nekk lu taqoo ak ñaari mbir yooyu taqoo boo xam ni day am doole lool ci yow ba ba moytuwul rek mu ëpp la doole léegi kon nit ki fokk mu jéem a xam loolu di ko teewlu fu mu toll di yar boppam di def ay sacrifice ci loolu jigéen dafa mën a jeexital ci nit jigéen dafa mën a sabab nit daal di dévier wàcc yoonu yàlla subhanahu wa taala loolu nag tegtalewul ne nit ki masalan da nga naan ah kon man léegi dootuma sax takk loolu kenn waxu ko maanaam léegi jigéen jigéen boobu ñu lay moytandikuloo mooy lépp loo xam ne dafa génn cadre l'islam dafa dugg ci bunt loo xam ne mooy yàlla la dafa dugg ci bunt loo xam ne teguwul ci topp yàlla subhanahu wa taala mais nit koo xam ne dafa dem ba tollu ci takk jabar mu wër ba gis jigéen boo xam ne gis na ci moom ngor ak diine ak yar mu labat ko comme na ko l'islam sante takk ko ngir fekk boppam ak ngir tamit jaboot ci loolu wallahi loolu lu baax la kon ci cadre bi ñuy waxee mooy moytandiku jigéen ci lépp loo xam dafay delluwaat ci lu neexul yàlla subhanahu wa taala subhanallah la hawla wala quwwata du jar ma koy téye daa mën naa ko bàyyi léegi bu dee ci kon loolu moom mu la ñuy wax ci ko jigéen léegi bu dee ci xale boo xam ni dafa màgg ci jaamu yàlla subhanahu wa taala da ngay gis ne ci même ci histoire am na loolu lu am la lu mel ne xale yi saxaaba yi nga xamante ne bi ñoom ñoo jamono doon ak yonente bi alayhi salatu wasalaam ñenn ñi ci ci kanamam lañ juddoo ñu indi ko ci moom yonente bi alayhi salatu wasalaam biñ julli biñ biñ juddoo ci kanamam nga xam ne ci kanamam lañ màggee ba bi muy faatu fekk jotuñoo nekk sax ay mag ñooñu bu ñuy wax ndaw loo xam ne dafa màgg ci jaamu yàlla màgg ci lislaam ñooñu lañ ciy jiital ñoo xamante ne bi muy faatu ñenn ci ñoom ay juróom ñetti weer lañ am ñenn ci ñoom ay juróom benn weer lañ am ñi ay at ñi ci des am na ñoo xamante ne bi ay juróomi at ñi ci gën a xaw a nekk mag tuuti te dañoo teel a sóobu te dañoo teel a soobu ci li nga xam ne mooy yoonu njub teel a soobu ci bëgg yëw léegi teel a ci bëgg yëw ak di ñëw ci teewee li nga xam ne mooy jàngale yonte bi alayhi salatu wasalaam di déglu ay xadisam di si jariñu ak di tasaari xam-xam boobu ku mel ne Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas da ngay dégg turam nii xale bu ndaw la woon bi yonte bi alayhi salatu wasalaam di dund Muad ibn Jabal xale bu ndaw la bi yonte bi alayhi salatu wasalaam di moo ko jël ñu njëkk ko ci kër yonte bi alayhi salatu wasallam ne ko xale bi jox naa la ko mu nekk di la liggéeyal mu nekk lu mat fukki at ci kër yonte bi alayhi salatu wasallam di ko liggéeyal jàngee ci moom xam-xam bu dul jeex ginnaaw bi fi yonte bi alayhi salatu wasallam jógee mu bokk ci borom xam-xam yi a mag ci borom xam-xamul islam daan jàngale diine naka noonu abdullah ibn abbas turu jamaanul quran nga xam ni bu dee xam-xamu alquran rek ci moom la fekk baax te bi yonte bi alayhi salatu wasallam di dund abdullah xale la woon du woon mag naka noonu ñeneen ñoo xamante ne bi war nañ ci ginnaaw bokk na ci fu ñu jox exemple ku mel ne ayub as-Saxtiyaani léegi Ayub boobu moom daan nañ ko tuddee amirul muminina fi lxadis mooy njiitu jullit ñi ci xadis yonte bi alayhi salatu wasalaam ndax nu mu amee woon xam-xam ci buntu xadis yonte bi alayhi salatu wasalaam Ayub woon koo xam ne moom bi muy nekk borom xam bu mag buy toog di jàngale xadis yonte bi alayhi xale bu ndaw la Ayub boobu te Ayub subhanallah ñi fekkee ay jataayam bu muy jàngale nga xam ne ci ñi jiitu woon la bokkoon ci ñi jiitu woon la bokkoon loolu sax salafu saalih nekkoon minal minal muhaddisin yu mag ñi nga xamante ni tey daanaka mënoo di waaye ay xadis te doo leen ci tudd ayub bi tamit tamima as-saxtiyaani léegi ayub bokk na ci ay yiwam yi ñu ko tuddal fekkee ay jataayu xadisam dañuy wax ne fekk nañ ayub muy jàngale xadis yonte bi alayhi salatu wasalaam waaye buy nettali xadis yonte bi alayhi salatu dafay jooy ba du sax daanaka mën a wax li nga xam ne mooy xadis bi nga xam ne day mujj di def semblant ne moom jooyul pour nëbb ay jëfam ak nëbb jooyam danaan léegi def buy jàngale mu yor mouchoiram di fomp di fomp ay bakkanam di ñand lu bari ak di sarax ndëkk bu ko laajee mu ne soj moo ma dal te soj bi def soj bu metti moo ma dal maanaam wax na maa ashadda zukaam maa ashadda azukaam da daan wax naan soj bi ak a tar soj ak a metti maa léegi loolu la daan jël def ko comme genre mbir boo xam daf koy làqatoo ci jooyam yooyu nga xam da ko daan jooy ci bi te bi muy toog di nekk borom xam-xam bu mag boo xam nit ñi dañuy jóge ay dëkk dëkk di tukki di dem di jëli ci xadisam boobu xale la boo xam ne nekkagul sax mag nga gis ne kon loolu lu lu mën a nekk la loo xam nit ki bu la yàlla baaxee nga am ñaari waajur ñu yar la ci diine wallahi loolu ni'ma loolu ngëneel la nga xam ne loolu ci nga juddu yaru ci màgg ci xam lu baax xam diine bañ lu bon loolu képp ko yàlla defal yàlla defal na la ngëneel ndax loolu day nekk avantage pour nga gën a mën a tegu ci yoonu njub mais même bu fekkee yàlla nattu na la loolu amuloo ko tamit yar bu mel noonu ci sa kër mais yàlla jubbante la bi nga ne ba commencé xàmmee yàlla def ci sa xol njub bëgg loolu njub xemmeem loolu ko te loolu yàlla moo koy def ci xol ku ko ko ko bëgg rek am ko wallahi bari na ñoo xamante ni dañu dem ba àgg ci réer foo xam ni dañuy bëgg njub xam ne lii mooy dëgg te duñ ko mën a topp maanaam yàlla da leen di sànq sànq te gi àgg foo xam ne dañuy dem ba dañuy xemmeem njub te dootuñ ko mënati dootuñ ko mënati topp ndax seen i bakkan tilim na ba àgg foo xam ne da leen ëpp doole seytaane ëpp na leen doole moo tax bu la yàlla baaxee ci loolu nga nekk xale am yenn âge yi yàlla jubbanti la nga teg ci njub na nga sant yàlla subhanahu wa taala ci kaw loolu te nga jàpp ko ak sa fukki loxo nga xam ne loolu nekkul lu yomb te nit ki bu fekkente ni sa dund yàlla subhanahu wa taala daf la koy laaj yowmal xiyam bokk na li ci gën a am solo ci sa dund googu mooy jamono bi ngay nekk ndaw bu caagante na ngay jël sa ndaw nga jox ko àdduna jaaxaan dem ba nekk man ba nga xam ne àdduna soxlaatu la sa bànneex léegi wàññeeku na yu bari yoo xam ne léegi daan na def xëcc di la yóbbu ci lu bon dem nga ba am ci maîtrise léegi nga daal di jël sa kurus bu rëy dem jàkka ja di xëccoo ay première sàppe loolu kenn du ne nit du tuub bu demee ba nekk mag mais léeg-léeg tuubu ñàkk pexe lay doon tuubu ñàkk pexe dem ba lu bon xam nga ni mënatoo koo def nga daal di nag léegi jublu ci ne da ngaa tuub mais loolu ñàkk pexe lay def lay lay nekk léeg mais bu la yàlla baaxee nga nekk ndaw ci lu mel noonu jéemal nga góor góorgóorlu xool ñoo xam ne gis nga ni lii ngay dund lii nga bëgg di njub bii la yàlla baaxee nga ci jéem a góorgóorlu moom la ñuy dund mën nañ la cee jàppale nga leen di taqoog ñoom di ànd ak ñoom comme ni ko yonte bi waxee ne masalu jalisi saalih ka baa'i al-misk imma an yuhdiyak aw tashtari min daf ne léegi melokaanu ñi nga xamante ne bii li ñuy misaalee ñi nga xamante ni ñooy ay àndandoo yoo xam ne yu baax lañ mu ne dafay mel na kuy jaay par rapport imma mu jël ci jox la comme cadeau wala nga jënd ci ah, lépp am nga parfum mu ne boo demee ba amuloo ci loolu sax xet gu neex gi la ci di la ciy jot rek mu ne loolu lu baax la kon da ngay gis ne boo demee ba bokk na ci li gën a mën a dimbali nit bu fekkee dafa bëgg a xenc yoonu njub mooy mu fexe ba ñi muy àndal ñi nga xam ne entourage am mu gis leen ci njub googu ak yiw boobu ñu koy nga xam dinañ ko ci mën a encouragé di ko ci dimbali wa illaa bokk na ci li gën a mën a jeexital rawatina jeune yenn âge boo ko amee bokk na li gën a mën a influencé jeexital ci sa njub ak nga bëgg a dugg dund diine am ay gàllankoor bokk na li ci gën a jeexital àndandoo ci la bokk parce que booy ànd ak ñoo xam ne loolu yitteelu leen rek dafa am lu ñuy jeexital ci yow dañ lay découragé loo ci loolu mais bu fekkee chaque jour yow ñi ngay àndal ci lii la wax mooy seen yitte moom la ñuy lijjanti ci loolu ngay nekk ak ñoom terewul yaa ngi defaale seen bu dee da ngay jàng parce que gisuma ne dindu diine mën na yàqal nit jàngam loolu nit da dañ koy xam daal maanaa léegi nit koo xam ne dafa yaakaar ni léegi diine dafay ñëw rek ne la yooyu yëpp na ko jël nga teg ko fële parce que mënoo koo boole loolu ay gisin la yoo xam ne gisin yu xat la yoo xam ni wallahi képp ku ko tàmbali du continuer loolu mënul continuer ci diine yàlla subhanahu wa taala te mbir la yoo xam ne nit maanaam léegi diine dafa nekk lu yaatu loo xam ne wallahi maanaam léegi bu fekkee da ngaa bëgg am njub rek pour ne da ngay tegu ci yoonu yàlla subhanahu wa taala da nga war ragal yàlla d'abord ci askanale bépp atte boo xam ne da nga koy askanale yàlla ci benn mbir da nga ci war a ragal yàlla parce que léegi xaraamal dara wala nga daganal dara ci askanale ku diine yàlla subhanahu wa taala lu garaaw la loo xam ne boo koy wax da nga ci war a teelu xoolaat li ngay wax ba xam te képp koo gis mu am audace ci bunt boobu loo wax mu daal di la koy atteel tegal la te muy ci mbiru àdduna yi ñuy dund nga xam ne lu mbir yu sosu la yoo xam ne dafa laaj nit ki am yenn niveau yi ci islaam pour mën ko étudier xam lan la ci islam atte nga gis moom mu ñëw ànd ci audace lool loo ci wax rek mu daal di la ci indil atte daal di la koy classel fenn xamal ne xam-xamam soriwul xam-xamam bariwul ne képp koo xam ne sa xam-xam yaatu na buntu boobu da nga ciy ragal ndax loolu la ñuy wax fiqhu nawazil moo gën a jafe ci fiq parce que am na ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam loo xam ne dafa existé woon dafa amoon ci jamonoom loolu lu ci nekk laata yonent bi di génn àdduna leeral na ko jullit yi xamal leen lan moo ci àtte l'islam lan la ci jullit bi war a taxawee léegi mbir yooyu du foofu rek la dund gi ñuy dund yam suñu dund gi day développé day évolué day avancé dañuy dem ba ay jamono ay mbir yu xewul ci wàllu xew-xew ak doxalinu àdduna dem ba juddu am léegi mbir yooyu jullit bi da war a xam atte l'islam léegi nag pour nag nga jël atte yi ñu atte woon ci jamono yonte bi alayhi salatu wasalaam ak texte yooyu nga appliqué ko ci suy ñuy dund nii réalité yi ñu dund nii dafa laaj nga bekk mbir mi ci wàllu xam-xam xool ko ci tous les plans loolu lu jafe la loo xam ne nit ki dëgg-dëgg foog mu am benn taxawaay bi ci xam-xam pour mën cee ànd ak benn dogu bi dëgg ci yenn atte yi way laa boo mel ne sama classe gi da nga war a ragal yàlla nga bañ a fitnaal doom doomu aadama yi léeg-léeg boo gisee lenn mu convaincre la nekk loo xam ne li mooy sa gisin sa digganteeg sa borom la jaamoo ko yàlla mu nekk sa gisin mais nga bañ a samp sa bopp borom xam-xam boo xam ne da ngay wër di uggee ci loolu parce que loolu bunt la boo xam ne léeg-léeg dina indi ay mbonte yu bari ci diggante ñi nga xamante ne ñooy dund sunna da nga ciy dem ba ci gis ay féewalu ak ay fitan yoo xam ne da xam ne li ci ñàkk xam-xam la tegu léeg-léeg sax ci kaw ñàkk yara lay tegu te bu ñu déglu woon seeni borom xam-xam jiital leen ci loolu problème yi yëpp leen ci fekk te léeg-léeg ay sentiment lay doon parce que jeune léeg-léeg boo tollee ci yenn âge sa sentiment yi boo ko boo ko boo ko maîtriser wul lool rek wallahi da ngay jël ay décision yoo xam boobu sax da ngay takfiir mu jógi xel bi yépp te da ngay jël ay décision yoo xam ni da ngay gis ne da nga ciy waroo ak borom xam-xamu islam yépp boo doon topp borom xam-xam yi nga jamonoon teel de A gis ku ku dëppook yow ci masala boobu te yow da nga ciy attana ne loolu rek mooy dëgg mais da ngay gis ne loolu du nekk position yi sax à chaque fois mbir bu temporaire lay doon quelque temps rek nga gis ay conséquence am ñëw ay regret commencé dañu ñu commencé di réccu ndax lu ko waral mooy teguwul woon ci xoolin gisin bu leer ak ci xam-xam bu leer ba tax na léegi ci wàllu léegi ndaw loo xam ne tey da ngay dund sunna di dund islam man li ma gis mooy bokk na ci li day gën a muccal nga ragal sa diggante ak sa borom ci wàllu di xuus ci loo xam ne xamuloo ko nga ciy wax benn ñaareel ba mooy nga warmaal xam-xam warmaal borom xam-xam yi bañ rek lépp lu la say santiment jox nga am ci sa gisin borom xam-xam bu ci waxati mu wuteeg yow nga ne dafa waxee bànneexu ba kanam daal di koy taxé dëkkal ko fenn loolu bokkul ci yar même bu fekkoon da ngay ute ci masala mu dem ba mu leer ne moom moo juumoon waroo ko taxé lenn waroo ko tuutal nga ñàkkee ko kersa wala nga jëmale benn kaddu bu xajam ci teg ko ci kaw deram ndax nit la te nit ku nekk da ngay juum te amul kenn ku dul yonte bi alayhi salaatu salaam lu dul lañ jël ci sa wax lenn am lu ñu ci delloo nit ku nekk sa dañ koy utal tegtal waxu yonte bi rek la ñuy tegtaloo kon bu dee ci bunt boobu la chèque mais nag jël sa bopp par exemple teg ko teg borom xam-xam yi bu ñu waxee nga ni loolu xalaatam la gisinam la loolu xata la erreur la parce que moom borom xam-xam la boo xam ne am na sañ-sañ yenn masaayil yi mu jëfe ci gisinam mais yow amoo sañ-sañ boobu parce que amuloo niveau bi léegi islam ci boppam am na masaayil yoo xam ne gisuñu borom xam-xam rek nga ci mën a jëfe parce que moom moo ci mën a xool xool lu ko gisinam ak xalaatinam bu rafet jox ci expérience mu am ci xam parce que da yàgg léeg-léeg ci xam-xam xam ne par expérience ci yàgg ci mbir mi ak am ci xam-xam day tax mbir bi bu ñëwee da nga ci am gisin boo xam ne doo mën a jël benn texte teg ci loxo nit ne lii mooy sama dalil mais au fond ci sa biir xol am nga ci dalil parce que loolu loolu la ñuy wax an nazar loolu wallahi dafa jafe nga expliquer ko amul xam léegi bokk na ci tuuti xam-xamu ku xamul comprendre loolu li may expliquer nii dafay ñëw rek ne gisinam la ah gisinam la parce que tegul ci loxoom benn texte na ko lii mooy sama gisin ci masala boobu ndax masala bi noonu rek lañ ci mën a waxee amul leneen amul texte boo mën a ñëw ne lii la masala qiyaasiya la tayib léegi bu boobaa lu borom xam-xam bi wax bu dëppawul ak ay sentiment am da koy rejeté ne léegi gisinam la man ànduma ak moom ci lii te itam kenn waru ko cee topp parce que nit rek la day juum mais loolu du waxeen yaa axi loolu du teggin bu dee dañ ne salafu saalix la ñu topp salafu saalix daawuñ wax loolu seeni borom xam leen daan sax def noo xam ne ñun tey ko fi defaloon sa borom xam-xam ñu war a wa rabbil kaaba salafu saalih ni ñu daan toroxloo di topp seen borom xam-xam yi di di leen di leen dunguru sax laay wax seen ginnaaw di leen sibooru ngir di am ci ñoom benn xadis ku ko fi defaloon tey benn borom xam-xam fii nit ñi ne la yow da ngaa gëm soufisme da ngay taqdis diw mais du noonu yaa xam-xam dañ ko war a wormal te boo nekkee jeune da fexe ba nga ragal yàlla bañ a am audace ci yenn affaire yi bu fekkee yenn masail ñëw na ci yu mel noonu nga ki nga xam ne jàpp nga ni dëgg yàlla xam-xamam de wóolu naa ko te am na xam-xam waxuma wax kat bu mel ne man de nga xam ne boo ko joxee benn thème mu dem négocier ko liir ci yenn téere yi nii rek wala mu déglu yenn kaset fexe ba am ci tuuti euh, imagination bu xaw a ñëw yor théorie di théorie yor làmmiñam bu neex loolu dafa yomb trop loolu du xam-xam loolu ñëpp mën nañu fii ku fi amoon tuuti niveau arabe ci yéen ñi toog nii li may def nii dina ko mën parce que yomb jafewul benn téere jàmbur ngay dem sëgg ci rek comprendre yenn explication yi ñëw toog di détaillé nit ñi di yéemu yaakaar ne sa xam-xam ngay toj fekk li ngay toj lépp da nga koo lii rek di tekki loolu du xam-xam yaa axi loolu nag la nit ñi di jaawale tey ak xam-xam fii ñi fi nekk fii di wax ay waxkat lañ borom xam-xam borom xam-xam la waxkat waxkat la dégg nga yenn masaayil yi bul ci dem ci waxkat yi ñu lay jaxase da ngay dellu ci borom xam-xam nga laaj ko bu fekkee problème am na ci mel noonu mu expliquer la sa digganteeg sa borom loolu mooy li la war nga jëfe ko bu fekkee dafa juum wallahi boo jëfee njuumte boobu sax boo dee yàlla subhanahu wa taala daal di ndaxte def nga sa lay kàttan parce que xamuloo laaj nga ki xam léegi loolu mu la wax loolu mooy li war fasalu ahla dikri in kuntum la ta'lamun ñi xamul la la yàlla subhanahu wa ta'ala dellu ne la nga laaj leen mais masala bu ñëw ku ne samp sa bopp borom xam-xam di ubbee di wax loolu day indi ay problème ci diggante ni nga xamante ne ñooy dund suñu rawatina ci milieu jeunes yi te nee la yooyu day teg tele suñu néewu xam-xam mais xam-xam loo ko gën a am di ko gën a ragal xam-xam ku ko ñemee rek amu ko ku am xam yenn masaayil yi boo ko ci cuqee da ngay dem bay hésité sax ni kii est-ce que xam na dara te loolu dafa am ibnu masud lan la doon wax ya ayuha nnaas man alima shay'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqul allahu a'lam fa inna min al-'ilmi an yaqula ar-rajul lima la ya'lam allahu a'lam wa qala allahu 'azza wa jalla qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin maanaam léegi Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne yéen doomu aadama yi ku xam dara ci islam muy xam-xam bu leer bu mu xam waxuma ku njott dara de ku xam dara na ko wax loolu lu lu jaar yoon la ci lislaam mu yem foofu lu tax ma ko parce que daf ne ku xamul dara ci yéen na wax ne allahu alam yàlla moo xam mu ne bokk na ci xam-xamu nit buñ ko laajee lu mu xamul mu ne yàlla moo xam lépp loo xam ne xamu ko mu ne yàlla moo xam mu delloo xam-xam boobu ci yàlla mu ne yàlla lan la wax yonente bi def na ko ne nit man li ma leen di woo laaju ma leen ci benn fay te nekkuma minal mutakallifin takalluf mooy ngay wane lu nekkul ci yow di samp sa bopp di teg sa bopp foo xam ne àgguloo fa loolu nit ku nekk da nga ko war a éviter di imposer wu loo xam ne mënuloo ko loolu mooy takalluf loolu yonent bi yàlla daf ne ko woon neel nit ñi man loolu du sama mbir kon buntu xam-xam nit waru cee takalluf warul te tricher tricherie baaxul da ngay wan nit ñi fi nga yem xamal leen fi nga yem ragal yàlla sa diggante ak sa borom nit ñi yëkkati la ba teg la fenn fi bu mu tax buñ la laajee yenn yi nga rus delloo laaj bi wala nga rus leen a delloowaat ci beneen borom xam boo xam ne gis nga ni moo la xam-xam wala daal foog nga négocier ko génn ci léegi da gis ko xam dañ koy laaj mu mel ne man toog laaj bu ko laaj dina ko tontu mais da ngay gis yenn laaj dalay leer ne kii li muy wax da koy négocier te bu fekkee muus nga seetlu nga li nga xam ne kii li muy wax nii da koy négocier mais nekkul lu mu teewlu mais loolu erreur erreur la xata la même bu fekkee masala bi xamuloo ko mën nga wax nit ki ne ko xaw ma ko teewlu ma ko fi ma toll mais may ma su ma delloo dinaa la ko gëstul su ma ñëwee la tontu la bu dee masala la boo xam ne nag sa xam-xam moo fa àggul nga ne ko xaw ma ko sama xam-xam àggul loolu bu fekkoon tey tey ci milieu jeunes yi fii ñuy dund sunna dinañ ko jëfe wallahi problème yu bëri dina dañ ak itam bañ a tar ci yenn yi ak képp koo uteel rek nga jël ute bi def ko comme noonoo am na masaayil gisee gis-gis yoo xamante ni du mbiru noonoo yaa axi ki ngay dundal yéen a bokk même mën yéen a bokk même pas-pas la ba si ngeen am masaayil yoo xam da ngeen ci wax loo xam ne dala convaincre mais loolu nga jël ko wala mu def benn erreur nga exploité ko nit mënoo bëgg say borom xam-xam comme salaf ni ñu waxee woon ne bokk na ci mandarga nit mu nekk ahlu sunnati wal jamaa day bëgg borom xam-xam ahlu sunnati wal jamaa warmal leen teg leen fenn fi mënoo ne say borom xam-xam da nga leen warmal bëgg leen teg leen fenn fi di exploiter seen i erreur di wax yenn waxi ci seen kaw loolu mënul nekk abadan da nga leen war di jéem a sàmm fu ñu toll seen der di sàmm seen ginnaaw di sàmm seen lépp loo xamante ni nit ki mën na leen cee jaaree kon buntu boobu bu ñu ci nekkoon di wax xëy na dañuy bàyyi charx ñu nekk di ko charx xadis bi ne fàttali la woon boo xam ne ndaw loo xam ne dafay dund na ci jamono ji na jéem a góorgóorlu mu taxaw ci di jàng diinam ci jànguwaay yoo xam ne yu leer la tey bañ tamit ku nekk nga dem jox ko sa nopp muy wax parce que tey fii tamit bëri na ñoo xam dañuy wax ñu bëri te boo leen dégloo dañu lay sànq loolu moom ñenn ñi dañ koy bañ a dégg naan da ngay déglu ci ku nekk ku ne nga jël ci moom di nekk dëgg ku ne nga bañ a jël ku nga bañ jël ci mu nekk dëgg mais loolu ki bi nga xam ne xamagul dara benn waay boo xam ne njaxas bu ñëw yóbbaale ko taxankatu guddi la nga ne ko déglu ko mu jaxase bopp bi lu ne mu gëmloo ko ko dangay demaat ba looy gis da ngay gis ne moom day jaxasoo ci diineem du am lenn lu ko leer ay subahaat mooy nekk ci bopp da dem sax ba bëgg koo dabuwaat pour récupérer ko expliquer ko yenn yi doy day fekk c'est a expliquer kon ñëpp nga jël ci ku nekk li dëggam loolu ku xam dem ba am ràññee diggante dëgg ak dëgg nga koy wax mais bu fekkente ni koo xam day soog da nga ko déglul borom xam-xam ahlu sunnati wal jamaa salafu saalih dañ daan wax naan laa tujaalisu ahlal bidaa wala tasmau ilayhim bu leen déglu ahlul bidaa bu leen toog ci ñoom lu tax parce que dañ daan ragal boo toogee ci ñoom xamoon benn mbir ba mu leer la naññi ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalam ñu jaxase ko ci yow wala ñu toqal sa xol benn lënt lënt boo xam ne ba ba ngay dee du tàggook yow léeg-léeg loolu day am moo tax léegi boo góorgóorloo ci loolu di jàng sa diine ci jàngin boo xam ne jàngin bu jub la bu set la boo ne am nga ci rafet njot tayit ci borom xam nga xamante ni seen nañ ci nga jéem a xool ñoo xam ne gis nga ni ñii seen doxalin ci sunna set na dañ ciy góorgóorlu ngay ànd ak ñoom ci dimbalikonte ak ñoom ci loolu ngay dund pour nga mën a mucc ci yenn problème yi léegi ñetteel bi mooy yonte bi alayhi salatu li mu wax ne wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid mu ne waa joo xam ne xolom dafa taqoo ak jàkka yi léegi xolom dafa taqoo ak jàkka yi mën na nekk taqoo ak jàkka yi mën na nekk lu lu lonku ci jàkka yi parce que shay muallaq mooy mbir boo da nga koo lonkoon fii fii boo fi daajoon benn benn pont nga jël kopp bi nga lonk ko ci dañ naan al kóob muallaqun bil mismar maanaam léegi kopp bi da nga koo jël nga lonk ko ci pont bi loolu mooy lonk loolu bu bu fekkee noonu nga ko tekkee loolu nuróol lay lay lay doon yonent bi dafa nuroole waa ji bëgg gum bëgg jàkka yi da koo nuróole maanaam ci nuróole ci ni mu taree ci bëgg gi dafa dem ba mel na koo xam ne xol bi buy génn jàkka ji da koy dindi lonk ko ci jàkka ji yaram bi rek mooy génn mais xol bi mi ngi des ci jàkka ji ba léegi xam ne léegi kooku kon mbëggeelam bi mu bëgg jàkka ji tar la wala nga ni mutaalliqun bil masjid mooy dafa nekk lu takkoo ak jàkka yi du lu lonk ci jàkka ja xol bi mais lu tax ko ak jàkka yi la loolu lépp lu muy tegtale mooy nit ki xemmem gu muy xemmem jaamu yàlla ak bërëbu jaamu yàlla yi mais du tegtale ne masalan jàkka ji dafa nekk place grand place boo xam ne soo fa demee da ngay fekk gars yi ñu ngi toog parce que léeg-léeg exemple léeg-léeg loolu dina dal nit mooy léegi di nga bëgg benn place lu mel a jàkka ja fu ñu neel ñu ne ma nga jàkka ñu ne waaw moom na jàkka ja de du caagante da koo bëgg parce que place bi jaamu yàlla la bërëb bi da nga fay dem di màggal yàlla da nga koo bëgg bëgg lañ fay def ba tax na boo fay génn ci mbir mi ni mu neexee ci yow ak nu mu àggee ci yow fenn fi doo bëgg génn place boobu di delluwaat ci wuri mbiru àdduna mbëggeel boobu boobu sens lañuy wax mais masalan ubbi sa ngan di gërëm place ci jàkka ji ndox yu sedd yi di dàqe bantiloo yi nekk nii lu ne ku ne dugg ci lu sa yoon nekkul léegi loolu neexaay boobu jàp ba tax jàkka ja doo fa jóg fu ñu anam ñu ne ña nga jàkka ja loolu ñuy wax bi tax ñuy wax mooy bëggeel boo xam ne dafay am te sensu jaamu yàlla bu ciy ànd loolu la wax ci bëggeel boo xamante ni dafay nekk moo tax imam Bukhari rahimahullah bokk na ci fiqam lu koy gën a xamee parce que téeram mi nga xam ne mooy aljaamiu sahih muy sahihul Bukhari bind ko def ci ay commentaire am dafay indi xadis yi rek indi ay bunt bunt bi day bind ne baabu kada daal di indi xadis bi léegi pour nga comprendre dëgg dëgg dëgg Bukhari fo compréhension bu mu am ci xadis yi mu xóotee foog nga lire bunt bi ni mu ko titré ñu mu ko tiitree boo ko liiree da ngay gis ne subhaana rabbil azim day déggee ci xadis bi yenn déggin yu sew yooyu yoo xam ne léeg-léeg borom xadis borom xam-xam yi sax dañuy yéemu ci ci loolu léeg-léeg day indi benn xadis xadis bi amul rapport sax ak titre bi pour lan pour leeral ne xadis bi mu rotal diw mi ngi ci te ci diw la solo te solo boobu mu solo ci diw am na ñu ko mettre en cause ne déggul ci moom xadis jëlewul ci moom benn xadis nga xam ne kon xadis boobu jam nañu pour mu wane ne problème boobu noonu nga xam ne moom la ñu wax ci càllale googu moom xam na ko te itam xam na ni loolu saxul day indi benn sanat benn càllale boo xam ne benn xadis boo xam ni kooku noonu moo ko soloo ci waajooju te daf ne ci nettali na ma diw na ma la wax nga xam ne da ciy wane ne kon moom déggee na moom pour léegi mu dindi la subaha boobu nga xam ne moom lay indi ci xadis bi nga xam ne moo am rapport ak buntu bi ak titre bi mu jiitalal la xadis boobu soog ci teg bi ci des nga xam yow boo ñëwee lire ko doo xam xadis bi ban rapport la am ak buntu bi ko ak imam Buxaari dugal boo settantalee bu baax di nga xam ne kii am na lu tax ñu di ko fi Buxaari foofu la agoon ci am xam-xam léegi xadis bi moom mi ngi ko dugal ci buntu nga ne lu toog ci jàkka di xaar julli ba beneen julli jot maanaam léegi nga julli sëlmal ci julli di xaar ba beneen julli jot toog boo ngay toog ci jàkka ji nekk fa mu ne ngëneelam mu dugal fa xadis bi lan la ci bëgg a tegtaloo mooy li yonente bi wax ne waa joo xam ne xolam dafa ko ak jàkka yi nga gis ne kon boobu sens la jox takkoo ak jigi jàkka léegi nit ki nga xamante ne àgg na foofu ci bëgg bërëb yooyu nga xam ne mooy ay bërëbu jaamu yàlla ngir loolu du koo xam ne buñ noddee danaan xaaral ma ñëw jug def ko rek te génn ci nga xam ne léegi day sentir benn charge bu nekk ci kawam da koy def rek pour débarrasser wu ci mais moom dafa nekk koo xam ne dafa bëgg jaamu yàlla bëgg jàkka yi ba nga xam ne bu génnee xolam dafay taxaw ak jàkka yi ci benn riwaay daf ne bu génnee ci jàkka ji ba baa muy delluwaat ci jàkka ji xol bi ci jàkka ji rek lay nekk xolam dafa taxaw ak jàkka yi léegi kooku la yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax ne xam ne ngëneel boobu nga xam ne moom ci xadis melokaan boobu la ñu wax ne bu dee ci góor lay nekkee ngëneel que jigéen parce que jigéen la chaque ne jigéen bu tàggoo jëkkëram wala mu tàggu kilifaam ne di dem jàkka ji yonent bi def ne la tamna'u ima allahi masajid allah bu leen tere jigéen yàlla yi dem ci jàkka yàlla yi buñ teree ne dañ dem ci la borom xam-xam yi waxee ne kon dañ ciy déggee ne jigéen buy sax ndakate dem jàkka day tàggoo ndax yonent bi alayhi salaam daf ne bu leen seen kenn si yéen jabaram tàggoo ne day dem jàkka ja bu mu ko tere léegi jëmmi tàggoo boobu mu tudd mooy wane ne kon ndakate jëkkëram mu am ci moom kàddu ci wàllu génnam tey léegi yonte bi alayhi salaatu wasalaam ne ku kenn ci yéen tere jigéen yàlla yi ñu dem ci jàkk yàlla yi mu ne nag waaye seen kër yi moo gën ci ñoom maanaam toog seen kër yi julli nga neen bi mu am jàkka ji amu ko te loolu am na xarit yooyu yoo xamante ni moom moo ci ñëw mu ne léegi julli jigéen julli ci biir néegam fi muy fi muy nekk di fa tëju di fa nekk mu ne mu julli foofu moo gën foofu ëpp yool mu génn ba ci verandaam ci buntu néegam mu génn ci veranda bi mu ne mu julli ci véranda bi moo gën mu julli ci dugg kër gi ci ëtt bi mu ne mu julli ci ëtt bi moo gën mu julli ci jàkka ja nga gis ne kon julli ci jàkka ja ndakate sax julli ci ëttu kër moo ko ko gënal naka nag bu julli woon ci biir ci biir néegam foofu la yool bi di gën a tey ëpp ndax rek mu mucc ci bépp lépp loo xam ne buntu fitna la ak itam mu sàmm boppam ci génn bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala daf leen ko tere ci yenn anam yi tayib léegi kon bi ci topp mooy yonte bi alayhi salatu wasalaam mu wax ne wa rajulaani tahabba fillahi ijtamaa alay wa tafaraqa alay mu ne wa rajulaani ñaari nit léegi ñaari nit la wax te gis nañ ni sabaa la waxoon juróom-ñaari nit la waxoon na ñoom juróom-ñaari critère la waxoon te lim bi gis nañu bokkonte bu dee ñaar ñi boole nga leen ci kon 28 lay kii 8 lay doon doon set mais fii ñaar ñi borom xoo xam ne dañ koo taw ci mooy dañ koo jubbanti ci ñaar ñi mooy ne léegi kenn lañ leen di compter parce que ñoom ñaar kenn considéré wu leen comme ñaari nit mais jikko bi ñu jikkowoo lañ jël considéré ko parce que fii newoon nañ waxuñoo ko ay nit mais ay jikko la ñuy waxal ay melokaan la ñuy waxal te comme que ñoom ñaar melokaan bi ñu melokaanoo benn melokaan bi la mooy dañoo bëggante ci yàlla kii bëgg moroomam kii bëgg moroomam ngir yàlla subhanahu wa taala tax mbëggeel googu ci yàlla subhanahu wa taala tax moom lañ jël def ko mu nekk benn jikko yonente bi kon kontew leen deux mais benn da leen konte am na si ñoom ñoo xam dañ ñoom ñaar ba ñu bëggantee ci yàlla bàgg fenn fi dañoo mujj mel ne comme kenn nit boo compté kenn ki rek mel na ne compté nga ki ci des moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam wàññi kenn mais li gën a dëgër mooy ne melokaan bi la yonente bi alayhi salatu wasalaam wàññi mais wàññiwul mbindee fii moo tax yonente bi ne ñaari nit ñoo xam ne dañoo bëggante ci yàlla subhanahu wa taala maanaam bëggante gi yàlla moom moo tax kii dafa bëgg moromam ngir yàlla kii bëgg moromam ngir yàlla ñoom ñaar ñu daje ci kaw loolu maanaam tahabba fillahi mooy kii tahabba Euh, saaxibahu fillah wa ahabahu l axar fillah ki dafa bëgg moroomam ci yàlla ki ci des tam bëgg ko ngir yàlla subhanahu wa taala mu ne ci loolu lañ ànd ba dee fekk leen ci kaw loolu ñu tàqalikoo ci kaw loolu ci kaw bëggante googu ci kaw yàlla ngir yàlla subhanahu wa taala tax léegi bëgg nit ngir yàlla tax loolu lu jafe la ndax léegi loolu dafay tegtale ngëm yàlla subhanahu wa taala ndax nit boo gëmee yàlla lépp lu yàlla bëgg nga bëgg ko lépp lu yàlla bañ nga bañ ko bis boo demee ba yëg ne lu yàlla bëgg bëgg nga ko lu yàlla bañ bañ nga ko loolu mooy ngëm yàlla subhanahu wa taala mais boobu ne da ngaa bëgg yàlla parce que gëm yàlla dangay bëgg yàlla da gëm yàlla bëgg yàlla waaleykum salaam wa te yow mbir yu bari yàlla bañ ko nga bëgg ko mbir yu bari yàlla bëgg ko nga bañ ko xamal ni ngëm yàlla googu des na léegi nag bu ngëm yàlla googu nekkee fii ci xolu doomu aadama bi léegi day daal di bëgg lépp lu yàlla bëgg tayib léegi ku muy bëggati da lay natt ci ngëm yàlla googu mbëggeel goo xam ne mbëggeelu féetewoo la ak mbëggeelu kii am loo ko jox ci loolu danga ko war a natt ci ngëm yàlla fa nit ki toll rek nga jox ko lu toll noonu sa ci sa mbëggeel sa digganteeg moom mbëggeel nag bokkul ak jëflante ak nit ki ci njekk ki nga xam ne da ngeen sekk ci wàllu àdduna moo xam mbokk la wala dëkkandoo la lu mën da ngay rafetal ci moom am yéene wan ko lislaam bu rafet bu fekkee jubul woon yàlla jubante ko ci sababu loolu jëflanteeg moom parce que nit da ngay jëflante ak fi yàlla yi ci nu anam bu rafet loolu bokkul ak nit nga jël ko bëgg ko ci sa biir xol loolu am na différence mbëggeel boobu ngay jox nit ki lañ ne la da nga ko war a jël nga natt ko ci yàlla subhanahu wa fi nit ki toll ci yàlla rek nga jox ko lu toll noonu ci mbëggeel léegi ñaar ñii dañu am melokaan boobu mooy dañoo bëggante ci yàlla subhanahu wa taala waxuma maanaam bëggeel moo gën a yaatu nobante nag ñu bàyyi loolu xel bu baax maa léegi léeg-léeg nopp nit ki comme ni bëgg ko nii mën a dellu ci yeneen mbir mais yàlla àndaale ci mais mbëgg moo gën a yaatu que nobel boobu dañuy duggaale ci biir te boo nee nopp da ngay génn mbëggeel parce que doo dem sa moroom góor nga ne dama ko nopp dëgg la wala déet te da ngay sa moroom góor da koy bëgg ngir yàlla kon doo ko doo tekkee sens boobu mais da nga koy tekkee mbëggeel ndax moo gën a yaatu sens bu mu am moo gën a yaatu léegi mbëggeel googu noonu ngir yàlla subhanahu wa taala am ngëneel bu rëy bu mu am parce que day tegtale ngëmu yàlla ak nit ki nit ki ndax yonent bi alayhi salaam daf ne man ahabba fillahi wa abghada fillahi wa fi fillahi wa mana'a fi aw wa maa wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi mu ne faqad istakmala imanuhu mu ne léegi képp koo xam da bëgg ngir yàlla nga bañ ngir yàlla maanaam li ngay bëgg yow ngir yàlla nga koy bëggee li ngay bañ ngir yàlla nga koy bañee boo joxe nga joxe ngir yàlla booy xañaatee nga xañaate ngir yàlla mu ne ku def loolu sa ngëm yàlla mat na def yoon loolu kooku ngëm yàlla mat na mooy am na ngëm yàlla boo xam ne bu kawee la parce que ndax dañu wax ne ngëm yàlla ki day dem ba àgg limite boo xam ne day mat tëju wala loolu mu mubaalaxa lañ ci namm ma ngël ngëm yàlla mat na boobu mooy àgg na fu kawe loolu mooy sens bu ñu koy tekkee al mubaalaga mooy xad istakmala imaanahu loolu al mubaalaga lañ ci nam mais duñ dogg ne nit kooku ngëm yàllam dafa mat sëkk nga xam ne dafa loolu la yonte bi alayhi salaatu wax ci xadis boobu mu nekk loo xam ne kon nekkul lu yomb ndax yonte bi daf ne woon min awthaqi ulal iman al hubbu fillah wal bughdu fillah mu ne léegi bànqaas yi jaamu ngëm yàlla subhanahu wa taala yi nga xamante ne ñoom ñoo ko takk téyegu mu ne bokk nañ ci gën a dëgër mooy bëgg ci yàlla ak bañ ci yàlla al hubbu fillah wal bughdu laa kon loolu nekkul lu lu yomb moo tax yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax ci ngëneel bi nga xam ne moom la ci wax te am na ci benn xadis boo xam tamit yonte bi alayhi salaatu wax na ci loo xam ne day tegtale ni loolu fu bokk ci mandarga gëm yàlla mi waxoon ne daqa taamul iman wala thalathatun man kunna fihi wajada bihinna xalaawatal iman mooy ñett yooyu mu ne woon képp ku nekk ci yow rek ci yooyu ci seen sabab di nga am caxte ngëm yàlla mu ne woon léegi an yakuna allahu wa rasuluhu ahaba ilayhi mimma siwahuma léegi yàlla ak yonent bi gënal na leneen ñoom ñaar léegi loolu bu demee ba àgg foofu day amaat yeneen mbir yu ñuy jëf moo tax mu ne wa an yuhibba rajul aw an yuhibba al mara laa yuhibbuhu illa lillah bu fekkee da ngay bëgg nit da nga koy bëgg ngir yàlla rek tax maanaam bëgguloo ko ngir leneen amul beneen considération bu ci nekk yàlla moo tax nga bëgg ba pare itam wa an yakraha an yauda ila al kufr baada an qadahu llahu minhu kama yakraha an yaquda fi nnaar mu bañ a delluwaat ci weddi gam nekkoon ci mbonte gam nekkoon ci réer gam nekkoon bañ cee delluwaat mbañeel goo xam ne day mel ne dañoo taaloon taalu safara nar ko ci nar ko ci tàbbal ni mu koy bañee mu bañ a delluwaat ci loolu mu nekkoon loolu ku mu nekk ci sa xol ñetti mbir yooyu yonent bi nee na am nga caxte ngëm yàlla subhanahu wa taala kon ñaar ñooñu ci loolu lañ ci kaw loolu la ñu bëggantee ngir yàlla subhanahu wa taala ci kaw loolu la ñuy nekk ba ci loolu la ñuy tàqalikoo te tàqalikoo ba borom xam ñu ci bari ci ñoom li ko tekkee mooy faatu fekk leen ci kaw loolu mooy ci loolu lañ dàqalikoo ci kaw loolu lañ génnee àdduna yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxaat beneen melokaan boo xam melokaan bu réyaat la ba dee mu ne wa rajulun daatu imraatun zaatu mansabin wa jamal fa qaala inni axaafu allaha azza wa jalla mu ne waa joo xam ne as ndaw su jigéen daf koo woo ci boppam mooy daf koo sàkk ngir mu ñëw mooy ak moom yàlla daf koo woo ci boppam ngir mu ñëw def ak moom naka su noonu te ndaw si dafa am yeneen màndarga yu nekk ci moom yoo xam ni moo war a mën a encourager ngir def ak moom loolu war a mën a nekk itam lu jafe lu diis loolu ci bakkanu nit ki mu rejeté ko ndax ndaw si dafa nekk ku am ginnaaw ku am dignité ku am personnalité mooy koo xam ni bokkul ci giir bu ndaw borom yax bu rëy bu rëy la comme ni ñu koy waxee léegi suñu jamono ji borom yax bu rëy la borom personnalité la ci moo xam ci ci ci deretam wala ci alalam naka noonu tamit nekkul ku ñaaw dafa taaru kon ñaari mbir yu rëy ci jigéen yoo xam ne bu dajee ci moom te jafe na mu daje ci jigéen ñaari mbir yooyu te bu dajee ci jigéen buntu fitna lay doon góor ñi dañ koy njëkkante dañ koy xemmem far nag yàlla nattoo ko moom mu xemmem la woola ci mooy yàlla woola ci boppam te ñu teewlu ne anam bii nga xam ne moom la lay woola ci ci ci boppam ñëwul fekk la nga toog ci biir gars yi de mu lay proposé nga xam ne léegi yow xëy na gaay yi nga ciy sóoraale wala jàpp nga ni boo fi dof dofloo yàq sa der léegi wala yooyu nit ñi nga ciy sóoraale non dafa nekk ci anam boo xam ni yow moom yàlla yow moom yàlla amul ku ko ñeenteel mu proposé la loolu euh, yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne waa ji ne inni axaafu allah man damaa ragal yàlla subhanahu wa taala azza damaa ragal yàlla man dama ragal yàlla boobu mën na am daf koo wax ci xolam teewlu ragal yàlla gu mu ragal yàlla tax mu rejeté ndaw si ne ko abadan du ma def loolu daal sàmm boppam ci lu bon loolu nga xam ndaw suñu ko ko doon sàkku wala da ko ko wax ci làmmiñam ndaw si dégg ko mu ne ko man dama ragal yàlla sama fukki xel xalaatul may def li nga may sant léegi sacrifice bu toll noonu nit ku ko def te defu ko ngir beneen considération burul rek ragal yàlla subhanahu wa taala te ni mu ko waxee noonu la amee ndax yonte bi alayhi salatu wasallam ki muy wax mooy koo xam ne waxul lenn ci làmmiñam te xolam leneen ne ci maanaam dafa wax li nekk ci xolam moom la wax ndax yàlla moom li lay jugé mooy li nekk ci sa xol tayib ak li ngay jëf léegi waa ji bi mu waxee loolu ak sacrifice boobu mu def yonte bi alayhi salatu wasalam ne da bokk ci ñaar ñooñu yàlla di keral bis bi nga xam ne kenn du am ker ku dul keru yàlla subhanahu wa taala ah, léegi yenn ci borom xam-xam yi lan lañu wax dañ ne léegi waa jooju mën na nekk ne ndaw si daf ko woo ci njaaloo mu rejeté ko ngir ragal yàlla subhanahu wa taala bu mu ragal yàlla wala mu nekk ne ndaw si daf koo ñëw proposé ko takk pour mu nekk jabaram mu takk ko mu xam ne kii àdduna mi ngi ci moom boo xam ne bis bu duggee ci moom dina ko yitteel ci digganteem ak yàlla dina ko yitteel ci digganteem ak ragal yàlla dina ko ci digganteem ak diineem te itam taxaw gu mu war a mën a taxaw ci ndaw si ngir yittewoo ko di ko lijjanti lijjanti wàllu àdduna mënu ko mënoo ko man damaa ragal yàlla subhanahu wa ragal yàlla tooñ la ci ne bu ma la takkoon ci li may proposé nii mënuma laa yore ndax foog ma lor la ci wàllu yore la ndax melokaan yooyu nga xam ne moom moo nekk ci ndaw si ci wàllu àdduna loo xam ne ci wàllu àdduna lay dellu par exemple <laughs> doomu ministre sàngam ñëw di la proposé wala doomu président par masalan mu leer na ne ndaw si yaru na ci anam boo xam ne yow mi boo ko takkee di ko tooñ di nga ko lor ci li ngay dund nga ne ko damaa ragal yàlla ci ne man mënuma laa yore ndax loraange yoo xamante ni bii moom moo du jóge ci man di dem ci yow ci wàllu àdduna mënuma ko ñaareel ba tamit ragal naa yàlla ci ne su ma la takkoon dina ma fitnaal ci sama diine ci yittewoo la ak sa taar bi ak yow yaay kan ba loolu dox sama digganteeg sama borom dox sama digganteeg sama diine loolu tamit beneen tekkin la boo xam ne borom xam-xam yi tekki nañ ko waaye bi jiitu ci tekki ne ndaw si daf koo sàkku ci boppam ci def moom lu araam yàlla muy njaaloo loolu la ko ndaw si sàkk tekkin boobu moom moo nekk lu gën a dëgër moom moo nekk lu gën a fedd lépp kon dañuy gis ne waa ji nga xamante ni moo rejeté ndaw si dafa am lu nekk ci xolam lu tudd muraqabatullah li ñuy wax waaidullah fi qalbi kulli mu'min loolu yonte bi alayhi salatu wasalaam doon wax ci misaalam boobu mu joxe woon ci njubu yàlla subhanahu wa taala am na benn woote bu benn wootekat bu nekk ci diggu yoon wi mooy yoon woowu nga xam yonte bi daf ko misaaloon mu nekk lu am ay genre bunt yoo xam ni dafa am ay rideau am luy fëkkaate di xëccaate nit ki di ko moytandiku di dox ci diggu yoon bi bu moytandiku rek bu moytu dafay daanu dafay daanu nga xam ne yàlla dafa def ay ay ay ay frontière ay limite ne bu leen ko dépassé nit ki warta dépassé frontière u yàlla yooyu bu ko dépassé rek dafay génn ci yoonu yàlla bi subhanahu wa taala warul di warta di moytandiku tamit li nga xamante ne mooy tere yàlla yi ndax tere yàlla yooyu boo koy jalgati di ko def loolu tamit da nekk loo xam ne day sabab nga génn topp moo tax nit ki nit kiy def ay mooy ay tere yàlla ñu tuddee ko faasiq mooy ku génn topp tayib am na ku nekk ci diggu yoon boobu siraatul mustaqim boobu di yuuxu nit ñi di leen woo naan leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen avancé leen kooku mu ne mooy woote yàlla bi nga xam ne dafay nekk ci xolu bépp jullit bu gëm yàlla nit ku nekk boo gëmee yàlla ragal ko di taxaw ci jaamu yàlla am na benn mbir buy nekk ci sa xol buy mel ne lu lay yedd di wax ak yow léeg-léeg même boo defoon lu bon day mel ne dafa am kuy wax ak yow ci sa biir xol loolu yàlla subhanahu wa moo ko tàbbal ci xolu képp ku gëm yàlla mooy waaraatab yàlla ak xup xuppekatu yàlla bi nga xam ne mu ngi ci xolu képp ku gëm yàlla subhanahu wa taala xuppekat boobu moom mooy fàttaliwaat nit ki ci genre taxawaay yu mel nii yàlla subhanahu wa taala mu delluwaat ginnaaw ba du def du naqare yàlla subhanahu wa moo tax waa ji bi nga xamante ni lu mel nii gaar na ko te muy tentation bu garaw boo xam ne nit ku nekk ci ñun mën na laa dal te ay degré la bu fekkee boobu dalu la tamit am na mën na dal ci beneen anam parce que léegi gis nañ jigéen ñi ci boppam ñoom ñooy daanaka ut góor ñi léeg-léeg di nga gis yoo xamante ne day du àgg ci ci degré yu boobu ñu wax parce que yi yi daje ci ndaw seela yëpp li yonente bi wax ki yonente bi melal yi daje ci moom yëpp xëy na dajawul ci kii te jamono jooju nga xam ne mbir yooyu yëpp daf koy tànte ay jigéeni jigéen dañuy jëm di ko fexeel pour def ak moom lu dul loo xam lu xaram la moom mu fekk boppam sàmm boppam ngir ragal yàlla subhanahu wa taala bu àggul tamit ci martaba bi kële àggoon am na tuuti ci melokaan boobu nga xam ne kooku amoon na ko ndax sacrifice bi même sacrifice bi la dellu ginnaaw bi même dellu ginnaaw bi la te itam même sabab bi moo tax naan même même même cause bi la mooy ragal yàlla subhanahu wa taala moom moo fi nekk moo dox diggante nit ak mbir yooyu nga xam ne moom moo koy xëcc di ko woo ci du du loolu le kon da ngay gis ne waa ji amul ne dafa ragal ëmbal ndaw si ñu yàq ci koñ bi wala dafa ragal ay parents wala dafa ragal nit ñi bett ko wala wala wala wala mais yàlla subhanahu wa taala moo fi nekk moom la lu ci xolam ragal googu mu ragal yàlla dox ci digganteem ak loolu moo tax kon nit ki bu fekkee dafa bañ perte li muy def mooy day fexe ba li muy def yàlla subhanahu wa taala jiitu ci lu muy bàyyi mu bàyyi ko ngir yàlla lu muy def mu def ko ngir yàlla wa illaa boo ko deful da ngay sonal sa bopp ci àdduna te boo dee yàlla daf lay ndax léegi looy def da nga cee a jiital yàlla sellal ko ngir yàlla subhanahu wa taala tax léegi ginnaaw bi nga xamante ne bi da ngaa dox sa digganteeg lépp loo xam ne lu bon la ay musique ay fecc ay caaxaan ay njaaloo bu caagante na nga dem ba mënatoo koo def parce que xëy na fi nga dëkk ñu ñi considéré nañ ne considération boo xam ni vraiment di nga gêné wu ñu lay gis ci yenn yi wala ñu la ciy dégg tayib wala am nga âge boo xam ne dem nga ba nga jomb nga yenn wala sa famille wala nangam wala nangam yooyu dem ba nekk ay mbir yoo xam daf la empêché pour nga def ko mais yow sa biir xol yaa ngi koy mbébét bëggoon nga ko bëggoon nga ko mooy am nga yéene bi pour ne bu fekkoon mënu nga ko da koy def parce que bëgg lu bon moom maanaam exemple léeg-léeg lu bon nga gis ko sa xel nekk ci loolu moom daanaka ñu ci mucc bariwuñ mais sa xel nekk ci bokkul ak da nga koo bëgg a def parce que buñ sa xel nekkee tamit dangay ngay moom fexe ba génn ci sa xel bañ ko def parce que yàlla daf koo xaraamal loolu moo tax bàyyi lu bon jafe mooy nekk li ci sa xel di nekk ba pare nga war ko koo empêché nag ne mukk sama bakkan du ma ko def lii loolu moo tax mu metti mais léegi kii moom bu yamoon foofu rek mu tane mais daf koo bëgg mais daf koo mënul rek mais bu xamoon lu muy def pour def ko daf koy def mais dafa am yeneen mbir yu ko ko empêché kooku moom bu nee moom defu ko itam day nax boppam waaw si yéene bi mu ngi fi tuubul tuub goo xam ne ngir yàlla moo tax bàyyiwul li ngir yàlla mais daf koo bàyyi ngir ne mënatu ko wala ngir ne am na yeneen mbir yoo xam ne ñoo ko koy empêché léegi kooku kon beneen melokaan la boo xam ne melokaan bu la ci melokaan yooyu loolu tamit du góor dong moom la ñuy wax ne moom moo ko mën a melowoo mais même jigéen boo xam ne melokaan yi yonente bi alayhi salaatu melal ndaw soos ci yoo xam ne mën naa attirer nit ci boppam bu fekkee melokaan yooyu daje na ci benn góor mu ñëw def même chose bi ci benn jigéen itam mu wax ko même tontu bi am na melokaan boobu yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax donte ki mu ko melal fii turu góor la jëfandikoo parce que bu nee war a loolu foofu góor googu mu tudd loolu lañ ci la mooy ak taxalib mooy ne parce que góor la plupart baatu góor moom la ñuy jëfandikoo te góor aussi ci làkk moo dominé jigéen maanaam léegi masculin moo dominé féminin léegi da ngay wax benn affaire nga jox ko masculin wax mais du jàggante ni góor kase moom moo ko mën a mel wala góor kase nga ci nam moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax jooju mu wax ne wa rajulun góor la wax mais même jigéen mën na bu fekkente ni li dal kii dal na ko mu taxaw même taxawaay bi day ci yool boobu nga xam yonte bi alayhi salatu wasalaam wax na ko tayib léegi beneen bi ci des mooy yonte bi alayhi salatu wasalaam li mu wax ne wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa axfaaha xatta la taalama chimaaluhu ma tunfiqu yaminuhu mu ne léegi waa joo xam ni dafa génn benn sarax mu koy saraxe mu ne mu nëbb sarax bi ba loxo càmmoñam sax xamul lan la loxo ndeyjooram di joxe xamul lan la loxo ndeyjooram di joxe léegi loolu mi ngi dugg ci bunt nëbb ay jaamu yàlla te loolu bokk na ci loo xam ne day dimbali nit ci sellal yeneen dafa nekk tamit ci luy tegtale ne nit kii ku sellal yeneen la mooy nit ki di nëbb ay jaamu yàlla xëy na sarax lañ joxe comme exemple ndax bokk na ci bunt yi nit ki gën a mën a puukarewoo bokk na ci bunt yi nit ki gën a mën a wanewoo sarax léeg-léeg duñ ko fàttaliku mais sarax ji génne xaalis joxe bokk na ci nit ki gën a mën a gistale léegi yonte bi alayhi salatu wasalam joxe comme ci cadre bu yaatu bu général rek anam boo xam ne anam bu yaatu la ci jaami yàlla yi ni ko nit war a jële jagleel ko yàlla dañuy wax ne lii kon misaal la rek bu yonent bi joxe ci sarax mais bépp jaamu yàlla ba nit ki di def dafa war a jéem a fexe kéemtalaay kàttanam mu nëbb ko ngir yàlla tayib am na ci jaamu yàlla yoo xam ne nag nëbb ko gënul lu mel ne léegi nit ki masalan julli gi muy julli di dem ci jàkka ja te mu nekk farata ci moom du ne damay toog sama kër damay damay nëbb samay def da ngaa war dem jëm jàkka ja julli ndax loolu farata la ci léegi nga naan damaa bëgg sellal damay toog ci kër gi damay nëbb samay jaamu yàlla loolu seytaane daf lay man foofu tayib da ngay dem ci jàkka ja nga julli ji te nga sellal sa yéene tayib léegi foofu wéetuloo nit ñi ngi lay gis mais sa biir xol nga wéet ak sa borom nga jagleel ko julli gi moom dong parce que wéet du caagante nag da ngaa tëju yow kese nga wéet mais mën nga wéet yow kese nga tëju jàmm yàlla mais mën nga jaamu yàlla fa la nit ñi di gisee fekk yaa ngi wéet mooy sa xol teewloo yàlla rek nga teewlu bu boobaa dañ naan loolu lay loolu moo tax ñoon wéetal yàlla wéetal yàlla mooy ñi ci des nga fàtte leen nga bañ leen a teewlu nga teewlu yàlla moom donc loolu boo ko defee wéetal nga yàlla subhanahu wa taala léegi sarax bi nga xam ne moom la waaji di joxe borom xam-xam yi dañ parce que as sadaqa lu yonte bi yàlla yoo yàlla subhanahu wa taala wax yonte bi ne xud min amwalihim sadaqatan léegi sadaqa boobu yoon yàlla subhanahu di wax da ko wax na mu ci al zakat mooy azaka léegi azaka nañ ko wax li ci nañ ci ci namm ah, sadaqa nañ ko wax li ci li ci namm azaka mooy sarax nañ ko wax li ci li ci namm azaka léegi fii borom xam-xam yi dañu ne sarax bi yonte bi alayhi salatu wasalaam wax fii waa ji da koo nëbb du azaka sarax la bu mu génne nii rek ci boppam di ko saraxe ndax bu dee azaka doo ko nëbbu da nga koy gël jël nga dem nga joxe ko bu fekkente ne am na place yoo xam ne jullit yi taxaw nañ ci ne fa lañ koy joxe ngir war koo séddale ñi nga xam ne lañ ko war a mais doo ko jël di ko nëbbu léegi bu fekkente ni nag sarax boobu nga xam ne moom lañ ci kii di joxe ci la yonte bi alayhi salaatu wasalaam waxee ne ci kii sellal bu mu sellal yéenem mu nëbb jëfam boobu te wax nañ ne du sarax dong mais jëf bi nit ki di jëf dafa war a jéem a góorgóorlu mu nëbb ay jëfam ndax moom moo gën a jege sellal sa yéene te itam moo gën a mucc ci ngistal ak ci ndéggital kon da ngay jéem a fexe say jëf nga jéem yar sa bopp ci di ko nëbb te boo ko nëbbee nga rafetal ko itam maanaam léegi sa jëf yi nëbb bul ko ñaawal sa jëf yi feeñ nga koy rafetal ni ngay rafetalee say jëf yi nga xam ne moom la nit ñi di gis noonu ngay jéem a fexe ba sa jëf yi nëbbu nga xam ne nit ñi te teewuñ ko fekkewuñ ko sa diggante ak sa borom la nga rafetal ko comme noonu wala sax mu gën a rawati ci toroxlu ak ci teewlu ko ak teeylu ko loolu yëpp mu ki da war a jéem a yar boppam ngir bunt boobu yàlla musal ko ci ci bakkanam ak ci seytaan ba mu jël ay jëfam mu jagleel ko yàlla subhanahu wa taala rek tax léegi yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax ne waa ji dafa saraxe ci loxo ndeyjooram ba loxo càmmoñam xamul sa xaw ba mu nëbbu ko ba loxo càmmoñam xamul lan la joxe léegi borom xam-xam yi dañ ne loolu liñ ci nam mooy bëgg melal dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kéemtalaay ni nga xamante ni noonu la nëbbee jëfam boobu pour léegi melal ko melal boo xam ne melal bu jéggi dayoo la moo tax mu waxee noonu mais loxo ndeyjoor loxo càmmoñ du xam parce que amul lu muy xamee bay gis loolu nga xamante ni moom la waa ji def mais dañ ne pour wane dëgg-dëgg nu mu ko nëbbee ñu wax yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax ne bu loxo càmmoñam boobu doon xam sax day du xam sax lan la joxe am na ñoo xam dañ ne liñ ci namm mooy tax la taalama chimaaluhu ñu ne mooy malaaka bi nekk ci loxo ci càmmoñam di bind du sax gis xam sax nan la waajooju di joxe ci mbir boobu la am na ñoo xam dañ ne li nga xamante ni moom lañ ci nam mooy ne du ci ngistal parce que bu ci ngistaloon léegi day nekk bàkkaar te bu nekkee bàkkaar malaaka bi nekk ci loxo càmmoñam da koy bind léegi seelal gi mu ci seelal nga xam ne ngir yàlla rek la ngistalu ci mu nekk yiw dong benn bàkkaar amu ci moo tax ki nga xamante ni moom moo nekk ci loxo ndey càmmoñam di bind di bind bàkkaar yi yoonam du ci nekk du ko sax xam sarax boobu nga xam joxe na ñu ne loolu lañ ci nam mais li ci gën a nam mooy yonte bi alayhi salatu wasallam loolu mu wax da cee nam nëbb gu xamante ni nëbb gu tar la bu waajooju nëbb loolu muy joxe ba loxo càmmoñam bi bu nekkoon luy xam sax di gis lu xam loolu nga xam ne moom la waajooju joxe nga xam ne melal melal bu jéggi dayoo la yonent bi alayhi salaatu wasalaam melal nëbb googu nga xam ne waa ji nëbb na ko saraxam boobu muy sarax te loolu bokk na ci luy gën tegtale ixlaasu nit ki mooy sellal nit ki ak ragal yàllam te loolu nit ku nekk war nga ci jéem a yar sa bopp ci nëbb say jëf mais léeg-léeg sarax même bu dee du saraxu azaka sax dina nekk lu gën nit ki wane ko lu mel ne waajoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nit ñooñu ñëwee nekk ay nit yu ñàkk mu soññ nit ñi ci sarax nit ñu jóge di saraxee mais li ñu doon saraxee dafa tuuti benn ci saxaaba yonte bi alayhi salaatu dem ci këram jëlee fa sarax bu jéggi dayoo boo xam ne bu koy da ko doon diri da ko doon watat ñëw jox ko ñooñu teg ko ci kanam yonte bi alayhi salaatu wasalaam ñi doon saraxe bi ñu gisee loolu loolu jàjji leen soññiwaat leen ñu gën a amaat sawarte daldi ñoom tamit dem def ni waa ji def dem seeni kër jëlee fa lu bari lu am solo lu takk loolu ci sarax ñu indi ko roy ko ci jëfam boobu mu jëf kooku li jëf da koo wane noonu ci kanamu nit dafa nekk buntu yiw ndaxte nit ñi dañ ko cee roy ba yonente bi kontaan ci loolu wax ne sax loolu waa ji def noonu nit ñi roy ko ci yàlla ko ci bindal ay yiw ci seen yiw yi nga xam ne si moom def nañ ko yàlla du ci wàññi dara da leen koy bindal ba mat mais yàlla da ko ciy bindal moom tamit yiw ndaxte moom mooy sabab bi léegi ci la borom xam-xam yi waxee ne léeg-léeg dina nekk xikma dina nekk lu baax lu gën nit ki jëf-jëf boo xam ni da koy feeñal masalan koo xam ne léegi xam nga ni moom wàllu sarax da cee gàttañ lu te am nga rafet njort ne yelwaankat bi ñëw di yelwaan xëy na boo génne woon sarax ci kanamam nga saraxe ko loolu dina ko fàttaliwaat ba tax xëy na moom mu daal di moom tamit fàttaliku ci buntu boobu génne sarax saraxe toppaloo ci jëf bu baax boobu te defaloo ko ngir moom ngir da nga bëgg mu xam ne da ngay saraxe mais da ko def ngir yàlla ak itam amal ci yéene boobu bu boobaa wala ay yiw kase la ay yiw yu bari la ndax léegi loolu mooy benn xeer nga ci ñaari picc mooy léegi am nga yoolu yàlla subhanahu wa taala ba pare tam fàttali nga ko ci biir jëf boobu nga xamante ni jëf nga ko léegi loolu kon bunt boobu loolu lañ ciy wax beneen bi ci topp mooy yonte bi alayhi salatu li mu wax ne wa rajulun dakara allah xaaliyan fa fadat aynaahu mu ne beneen waay joo xam ne dafa fàttaliku yàlla fekk ne mu ngi wéet maanaam léegi xaaliyan foofu xaal la maanaam dafa fàttaliku yàlla fekk ne mi ngi wéet jamono bi muy fàttaliku yàlla fa ay aynaahu ay bëtam daldi daldi tuuru léegi bët du tuuru rangoñ moom mooy tuuru mais yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir melal jooyu waa jooju ci melokaan boo xam ne bu matalee la moo tax mu ne ay bëtam daal di tuuru mais fa faadat dumuu aynaahu aw du dumuu aynayhi maanaam léegi ay rangoñu bëtam ñoom ñoo tuuru ci fàttaliku boobu mu fàttaliku yàlla waxoon nañ ne borom xam-xam ne dañu wax ne dakara léegi fàttaliku ne yàlla foofu mën na nekk zikr min baabi tadakkur maanaa léegi mën na nekk ne dafa fàttaliku yàlla ci xolam toog fàttaliku màggaayu yàlla ak yàlla subhanahu wa taala nu mu teddee ak ay ngëneelam ak mbugalam nu mu taree loolu tax mu jooy ay bëtam daal di tuur rongoñ loolu mën nañ koo tekkee noonu mën nañ ko tekkee tamit ne dafa toog mu tudd yàlla subhanahu wa taala ci azkar yi nga xam ne ay azkar yu maa waxuñu buntu bi daal mu toog tëju di dugg xalwa wala yooyu mais dañu wax mu toog di tudd yàlla te loolu dagan la ci anam boo xam dafa dëppoo ak sunna loolu waral ci moom mu daal di jooy ay bët ay rangu ñoom daal di tuuru ñaar yëpp mën nañu ko ko tekkee donte bi jiitu moom moo nekk lu gën a jege wax ji nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax que dafa ci benn raf laf daf ne koo xam ne dafa fàttaliku yàlla bëtam daal di jooy ci kaw ragal yàlla subhanahu wa taala dafa am benn laf daf ne min xashatillah daf ci dolli ne ci kaw ragal yàlla te fàttaliku moom lañ gis ne moo gën a dëppoo ak baatu ragal yàlla subhanahu wa waaye léegi dafa fàttaliku yàlla mu jooy ci kaw ragal yàlla subhanahu wa taala maanaam jooy gi mu jooy ci ragal yàlla subhanahu wa taala la tegu kon dafa fàttalikuwaat yàlla mu ragal yàlla loolu nekk sabab ay rongo ñu daal di tuur mu daal di jooy léegi wet boobu yonte bi alayhi salatu wasalaam wax ne xaaliyan yenn ci borom xam lañ ko tekkee comme lu ñu doon wax léegi mooy ne mën na am ne moom dafa wét moom kase foo xam ne kenn nekku fa te loolu moom moo gën a sori ngistal ay bëtam daal di jooy beneen bi mën nañ ko tekkee ni nekk na sax fu ko nit di gisee mu ngi ci jàkka ji waaye xëy na ñu ngi jàngal alxuraan loolu fàttali ko yàlla mu jooy mi ngi jooy ngir yàlla subhanahu wa taala mi ngi jooy wét na yàlla rek moom moo tax muy jooy bu boobaa même nit ñi ñi nga fa mais day dugg ci laxla bi yàlla yonente bi alayhi salaatu wax ne xaaliyan mu wét parce que foofu ba léegi dafa wét parce que wét bi ci moom ci jëmmam lañ ci namm mais ci xolam lañ namm wét bi wétu xol la te bu fekkee yow sa xol bi jëmmaloo ci nit yàlla nga ciy jëmmal moom nga ci teewlu ak màggaayam fàttaliku ko ci loolu rek tax la di jooy bu boobaa yow da ngaa wét ci sa jooy googu ngay jooy yàlla rek moom moo tax nga koy def loolu boobu sens la ko borom xam-xam xam ne jooy ngir yàlla subhanahu wa taala ngëneel bu bëri la am yonente bi alayhi salatu wasalaam doon na digal saxaaba yi naan leen na ngeen jooy ngir yàlla bu ngeen demee ba sax jooy boobu jafe ci yéen na ngeen jéem a fexe ngeen jooy ubku fa in lam tabku fa tabakaw na ngeen jooy bu fekkee dem ngeen ba jooy boobu jafe la parce que léeg-léeg dafa am ci nit ñoo xam naturellement noonu lañ mel du sax xëy na seen xol moo wow wala dara mais jooy daf leen a jafe jooy yomb leen mën nañoo toog fii ñu jàngal quran ni ñëpp seen xol tooy ñëpp di jooy ñu ne zëmm toog di xoole duñ jooy du leen neex xëy na mais duñu ci mën dara naturellement noonu lañ mel gaaw ñoo jooy léegi loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne loolu dangay ngay a jooy nga jooy jooylu du jooy jooylu pour bëgg gars yi ne bokkoon nga ci ñu doon jooy léegi yow bi ñëpp jooyee jooy nga parce ngay bañ léegi gars ne ñëpp jooy nañ jooyloo wala yooyu yëpp yi wu li la mooy nga jéem a tàmbal sa bopp jooy parce que rongoñ tuuru ci ngir yàlla subhanahu wa taala ay gëneel yonent bi def ne aynaani la tamassuhuma annaaru abadan aynun baatat taxrisu fi sabilillah wa aynan bakat min xasyatillah aw kama qala bët a yoo xam ne safara du leen lakk mu ne bët yoo xam ne dafa fanaanee xool di sàmm ci yoonu yàlla subhanahu wa taala di garder ci yoonu yàlla subhanahu wa taala mooy léegi jullit yi génn dem di xare ji ci yoonu yàlla léegi ci biir armée bi bu ñu tëddee di nelaw dafa am ñoo xam ne ñooy jóg di garder jullit yi waxuñu ngeen dem def colonie de vacances fenn de ci benn école nga fanaane faa nekk ne da ngay garder fii fi sabilillah dañ ne fii al jihad fi sabilillah lañ ko la ko borom xam-xam ni teccee parce que fi sabilillah léeg-léeg day nekk fii kulli abwaabul xayr mooy ci bépp bunt boo xam ne bunt yiw la mais léeg-léeg dafa am fii sabilillah yoo xam dañ koy wax ci quran wala ci hadis liñ ci nam mooy al qital fi sabilillah mooy jihad qital xeex ci yoonu yàlla yor ngànnaay loolu lañ ci nam léeg-léeg masalan léegi ñi nga xam ne dañuy tekkee li yàlla subhanahu wa ta'ala wax ne azaka ñu ngi ko war a jox ñi ñàkk ñi ñii ak ñii ak ñii lim lim lim ba boole ci ci ñim lim mu ne wa fi sabilillah ak tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoonu yàlla tayib am ñoo xam ni ñu bëgg mooy lan wan occidentaux yi ne leen islam ci boppam dafa nekk dina joo xam ne dina ju yaa ju rafet la dina ju yaatu la dina ju matale la ba tax na dafay encourage jullit yi ñu financé ci bépp buntu boo xam buntu bu baax la buntu yiw la moo tax azaka sax dañ koy joxe ci bépp buntu boo xam ne buntu yiw la parce que yàlla moo ne fii sabilillah te fii sabilillah li muy tekki mooy bépp buntu boo xam ne buntu yiw la rek anta fii sabilillah toog bi ñu toog fii di jàng suñu diine buñ ci selalee suñu yéene fa huwa fii ci yoonu yàlla la tayib mais aaya bi li ci nam mooy alqital fii sabilillah ñi ñuy jox azaka foofu di jël ci alalu azaka teg ko seen loxo mooy ñu nekk ci xare xare laa wax ci yoonu yàlla tayib naka noonu xadis bi yonente bi alayhi salaatu salaam sàmm boobu muy wax ci bët boobu nga xam dafa fanaanee xoole nelawul di sàmm ci yoonu yàlla mooy ñu nekk ci kaw xare ci yoonu yàlla nit ki fanaanee xoole di sàmm ñooñu nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw xare boobu la tayib beneen bi mu ne waay naa ni bakat min xasyatillah mu ne ñaari bët yoo xam ne dafa jooy ngir ragal yàlla subhanahu wa taala mu ne ñaari bët yooyu tamit safara du ko lakk mukk kon da ngay gis ni ay bët yoo xam ne dafa jooy rangoñ tuuru ci ngir yàlla tax ngëneel bu rëy la am ci yàlla subhanahu wa taala bokk na ci xadis bi mooy ne juróom-ñaar ñi nga xam ne yàlla daf leen di keral ci suuf keram gi bis boobu nga xam ne kenn du am ker ku dul moom bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci waaye ji nga xam ni dafa jooy ngir fàttaliku yàlla subhanahu wa taala fàttalikuwaat ragal yàlla ak màggaayam mu daal di jooy ngir loolu lii mooy xadis bi nga xam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam wax na ne sabaatun yudilluhum allahu fi dillihi yowma la dilla illa dilluhu ba ci jiitu mu ne aadil bi ci topp mu ne chabun nachaa fi ibadati llahi azza wa jal bi ci topp mu ne wa qalbun wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid bi ci topp mu ne wa rajulaani tahabba fi llahi ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi bi ci topp mu ne wa rajulun daatuhu imraatun daatu mansibin wa jamal fa qaala inni axaafu llah azza wa jal bi ci toppaat mu ne wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa axfaaha xatta la taclama shimaaluhu ma anfaqa aw ma tunfiqu yaminuhu bi ci topp mu ne wa rajulun dakara allaha xaaliyan fa faadat aynaahu loolu mooy xadis bi nga xam ne yonte bi alayhi salaatu wax na ko ci juróom-ñaari ñooñu nga xam ne ay juróom-ñaari nit yu limité wu mais ay juróom-ñaari melokaan la ay critères la yoo xam ne képp ku ko melowoo da nga ciy dugg te itam waxoon nañ ni góor ak jigéen ñoom ñoo ci yem lu dul rek ci yenn melokaan yi yoo xam ne leeraloon nañ ko ci biir sharh bi li ñu ñaan yàlla subhanahu wa mooy mu boole ñu ci juróom-ñaar yooyu le ndax léegi juróom-ñaar xëy na yàlla mën na baaxee benn nit mu dajaloo ci moom juróom-ñaar yépp ci moom yàlla mën na baaxee nit juróom-ñaar yépp dajaloo ci moom bu juróom-ñaar yépp dajaloo ci yow tamit nga jéem a fexe benn bu benn sax nga am ko ci juróom-ñaari melokaan yooyu la léeg-léeg nit mën na ci am ñaar wala mu am ñett kenn am ci ñeent mais ñun ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa donte benn la yàlla bañ ñu koo xañ te li gën mooy ñu ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala mu boole leen juróom-ñaar yépp mu nekk suy suñ si ñun waaye ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu bañ ñoo xañ melokaan yooyu nga xam ne moom la yonte bi alayhi salatu wasalaam tudd ci xadis boobu boo leen ci ñi nga xam ne da leen di keral ci suuf keram bi bis boobu nga xam ne kenn du am ker kudur moom yàlla subhanahu wa taala fa innahu waliyu dalik walqadiru alayh wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi muhammad asalaamaaleykum wa rahmatullah subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka dañoo. est-ce que euh, keral boobu lay keral day day day teg na yow ginnaaw keral bi après day texe léegi bu fekkente ne yow. xam naa li nga bëgg a wax léegi bu dee masalan jikko yi boo ci jikkowoo benn parce que am na ci yoo xam ne xëy na doon luy continuer ak yow ba nga faatu ci lu mel ne masalan proposition boobu ñu wax ne waajoo ji ndaw soo proposé na ko ko mu ne damaa ragal yàlla xam nga loolu léegi benn mbir buy am rek dem la léegi ginnaaw ba waajooju nekk koo xam ne amaatoon na yeneen bàkkaar yu mag yoo xam ni nga ko doon jëf ndax léegi loolu rek day sabab ci moom ne kon day texe ci ginnaaw bi ñu ko kereel dañuy wax ne léegi yooyu ay mandargay texe la ci nit ki bu fekkee yàlla defal na ko lu mel noonu yomal xiyam ci taxawaay boobu la mais nag bu fekkente ni am na yeneen mbir yoo xamante ni wares na ko koo topp mu dellu ci digganteem ak boromam ci ay bàkkaar yu mag yu mu daan def wala digganteem ak jaam ñi loolu dafay delluwaat ci àtte gi ko yàlla subhanahu wa taala di àtte mooy alxisaab parce que yàlla daf lay daf lay xisaab jaam bi rek leen la sa sa say jëf bu la yàlla jéggalee da ngay texe ci jéggalu yàlla subhanahu wa taala bu fekkente ne yàlla xisaab na la nag yonent bi def ne maaw nuuqishal xisaaba udriba képp ku yàlla xisaab rek leen la say jëf benn par benn fokk mbugal la amul kenn ku ci mën a mucc lii am rek mooy yàlla jéggal la ne la say jëfe ngi nii ba nga gis ko mu ne la jéggal naa la ko demal dugg aljana mais bu la yàlla téye rek la la say jëf kenn par kenn benn par benn foo jaar yàlla mbugal la léegi nag bu fekkente ni kooku yàlla subhanahu wa taala baaxee na ko ginnaaw bu ñu jub ba taxawaay boobu bu ñu fa jógee am na yeneen jaaruwaay yu ñuy jaar lu mel ne jéggi siraat ak réglé yi ñuy réglé tey jëf yi dañ koy peese ci ay bascule yoo xam ne lu sax la al mawazin yàlla day peese jëf yi yàlla day atte diggante jaam ñi yàlla dina wéet ak jaam bu nekk digganteem ak moom du am kenn ku dox seen diggante yéen ñaar mu wan la say jëf tey képp ku yàlla bëgg a suturaal ci taxawaay boobu ngay wéet ak sa borom ci la la yàlla di waxee say jëf sa digganteeg moom ne la defoon nga ko ci àdduna ma xam ko suturaal la ci ni ma la suturaale ci àdduna noonu laa la ci suturaalaate fii jégal naa la demal mais képp ku ñu yuuxu ci diggu mbooloo mi ne la diwu doomu diw nga siggi ñu wan la say jëf ci kanamu nit ñu weer la kooku yàlla da leen dugal yàlla nañu yàlla musal ci weer weeru yawmal qiyaam yàlla nañu yàlla suturaal ci àdduna ak ci àllaaxira léegi nag kooku moom li ñuy wax mooy ne loolu noonu yàlla ko teralee ci taxawaay boobu mandargay texe la mais ndax loolu rek na ci mu texe wallahi allahu alam bu ko yàlla jégale yërëm ko day yeneen bàkkaaram yooyu dafay texe loolu moom loolu lañ ci mën a wax mais ndax loolu rek mooy nekk sabab doy rek mu texe loolu moom mënuñ koo wax ndax yeneen yeneen bàkkaar yi ci des luñ koy topp la loo xam ne ci diggante moom boromam lay dellu wallahu alam fadal yaa a la question ci wàllu ci dara yenn saa yi école laa euh, ba léegi bu dee wàllu jiite jigéen li ci wax mooy xeet xeet boo xam ne góor ak jigéen ci boppam ñu jël seen mbir méngale ko jigéen ñu jiite leen mais bu dee ci wàllu organisation doxalin lu mel ne comme ci école yi ñu ko waxee noonu léegi ñu teg leen kenn koo xam ne moo nekk ci seen bopp jiite leen pour seen i mbir mu mun koo méngoo parce que boo leen bàyyee noonu day am fawda te pour góor nekk ci seen biir di lijjanti yéen yi day jafe parce que diggante buntu jigéen ak góor buntu fitna dañ ko ciy jéem a fexe fu di ko moytandiku même léeg-léeg nit ki bu jiitee yu mel noonu dafay war a jéem a ko sàggan ci diggante mu jigéen ñi te am na mbokk yoo xam ne allahul mustaan loolu ci la leen seytaane di jaar moo ne léegi dañuy nekk amir ci benn école wala yu mel noonu nekk responsable rek daal di sàggan ci yu bari fekk ku amoon caractère la ko woon jaxasoo jigéen ñi la ni nga gis yu bari ci yooyu mu sàggan ci te liggéeyam boobu ak place am boobu ñu ko moo koy waral ndax léegi day daal di commencer di jaxasoo ak jigéen ñi ñuy ñëw di ko wax yenn problème yi di ko expliquer mu daal di commencer léegi di changer ay comportement am ñu koy fréquenter sax ñenn ñi dañ ci dem ba xóotal ci lekk-lekk soo matul fa la seytaane te nga da nga waroon gën a joxe exemple nit ñi da nekkat exemplaire sa jikko yooyu nga yoroon avant ngay nekk njiit ba nit ñi xemmee moon la ci da nga a jëm a fexe boo nekkee njiit nga koy muraaxaba di ko bàyyi xel foo toll di moytandi ko seytaane di ko wàññi te léeg-léeg boo moytul nit ñi ni ñu ñëwee ceew noonu di def pression ku ne di ñëw di la soxla loolu mooy dem ba sàggan lu la ci yu bari rawatina buntu jigéen kon jiite foofu wàllu jigéen dafa nekk lu jafe tey léegi bu fekkee demee na noonu ñu dem ba léegi def nañ jigéen boo xam ne moo nekk seen bopp problème bi ñu am seen biir moom moo koy taxaw li ko léegi kooku tamit njiit bi nga xamante ne bi moom moo jiite waat ñun suñu euh, àndandoo boobu ñu ànd yépp te du tudd ay tur association de parce que yooyu moom beneen wax la fi indiwaat encore mais dama naan suñu àndandoo boobu ñu ànd moo xam ci école bi la wala université bi la amaat nañ beneen njiit boo xam ne moo coiffé liggéey boobu ñu liggéey yépp kon kooku moom mooy njiitam mais moom daf koo jël def ko comme naaru secrétaire boo xam ne moom moo méngoo mbirum jigéen ñi moom moo ko yore pour seen i mbir mën a tegu ci organisation te place boobu day jafe ci góor mu taxawu ko ndax yu bari ci yoo xam ne l'islam daf koo daf ko tëral ci wàllu doxalin ci diggante góor ak jigéen bu boobaa duñ ko mën a sàmmonte léegi ñu teg fa jigéen ngir ngànt boobu bu boobaa duñu wax ne jigéen boobu mooy seen njiit mais day mel ne moom mooy seen intermédiaire seen diggante ak seen njiit bu góor boobu wallahu alam faddal yaa

di sellal yàlla di wéetal di def jaamu yàlla dina yem ak benn caaxaankat bu nekk fii nekk un rappeur wala benn musicien mën a yem yaay maanaam léegi wàllu diggante góor ak jigéen moom rawante ni muy amee noonu day am day am rawante ci jaamu yàlla day am donte nag jigéen diineem doye dina tuuti ci yenn mbir yi parce que dafa am lu nekk ci ñoom ci wàllu doye di te day jeexital ci seen diine ci seen wàllu xalaatin seen wàllu doxalin ak seen sàggante ci mbir yi terewul jigéen mën na góorgóorlu bu baax taxaw ci ci diineem ba sax gën ay góor yu bari aywa xam nga léegi yenn yu góor yi góor yu góor euh, askanewoo nga xam ni góor rek moom moo ko jagoo te jigéen du ko ci fekk si am na yenn cri yenn jikko mais am na tamit yoo xamante ni jigéen tamit nekk na yu ko yàlla subhanahu wa ta'ala baaxee yoo xam ne góor mënu ko ci fekk si yu bari ci ay jàmm yàlla yoo xam da nga naan sax fii dañuy wax ne xëy na jigéen dañ ko fee dañ ko fee beral wàll masalan léegi yow salaatul jamaa waajiba nga dem julli ci jàkka ja jigéen dañ ne ko toogal sa néeg nga julli moo gën ci yow mu am yool bu rëy te du ci sonnante di dem ba foofu jihaad fi sabilillah da nga yow jël sa jaasi dem dóorante ji ay ay ay xeej ak ay ji ay kii mais jigéen da jigéen dañ ne ko toogal sa kër nga topp sa jëkkër nga jaamu yàlla subhanahu wa taala wéetal ko loolu nga yool teree benn mbir dañ leen di ubbil beneen bunt jàggante càgganteel dañ koy tëjal ay bunt rek ne ko toogal bul def lii mais yàlla daf koy wax ne ko beneen bunt a ngi ni boo xam ne yiw bi nga doon ut fële boo ko utee fii dañ ko fi am ci boobu cadre la ñuy waxee mais du jàggante ni masalan dañ naan xadis sàngam xadis yi xadis yépp góor ñi rek lay waxal jigéen ñi dugguñ ci kon góor ñi ñoom ñoo am avantage ci jigéen ñi loolu erreur la xopa xopa yu bari ci melokaan yooyu jigéen da ci bokk ak góor lu dul ci yenn yi nga xam ni dafa ci l'islam dafa nekkul ci loo xam ne jigéen daf koy meloo jigéen waaye xobbal xobbal yaa aywa aywa aywa xobbal hmm, subhanallah léegi bu dee wàllu jàngal jigéen dafa nekk masala boo xam ne moom pour débattre ko wax dëgg yàlla du ma ko mën a tontu fii daal masala bu yaatu la boo xam ne dafa laaj étudier ko bu baax ci d'abord ki nga xam ne mooy jàngal jigéen ñi <coughs> lan moo tax muy jàngal jigéen ñi ndax am amul kenn te sax maa ngi commencé dugg ci wax ji fi nekk léegi ndax moom par exemple am na keneen ku mën a taxaw place am ci loolu ci jigéen parce que léegi question bi lu tax nga posé ko parce que am na ay mbir yoo xam ne ci wàllu fitna lay dellu ak mbir lu ay mbonte yuy yuy xew ci diggante bi ci jàngal boobu mu leen di jàngal moo xam fitna yooyu mi ngi jóge ci benn côté bi dem ci beneen côté bi wala beneen côté bi dem ci beneen côté bi maanaam vice versa la affaire bi day juge fi dem fi juge fi dem fii tayib léegi bu dee léegi mbir moomu loolu moo taxaat ñu mettre en cause mbir boobu maa di ci posé waat ay question di laajaat kon dañuy laaj gestu ndax léegi am na fitna yooyu ak buntu yooyu ñuy ñuy ñuy séntu ne ay buntu mbonte la yoo xam mën na cee tijjee ko ndax am na lu ko mën a fekk mooy ndax am na ku mënoon taxaw place am ci jigéen ñi koo xam ne bu fi taxawoon di jàngale yor jàngaleem boobu loolu dina am ndax question bi dinañ ko sax supposé bu boobaa bu fekkee demoon nañ ba loolu amul nag ñu soog a nag léegi ndax moom dina ko mën a yore wala du ko mën a yore ak bu ko yoree ci condition la koy yore maanaam njàngal mi tamit du jàng nañ naan ko jàngale rek bàyyi ko mu nekk fii di euh, tërëlër yi xool nu mu ko neexee mu koy defee mais dañ koy waxal ne ko ci anam dala islam jàngal ne la noonu nga ciy jàngalee jigéen ñi mu tënku ci anam yooyu la loolu nag mbir la boo xam ne wallahi dafa nekk loo xam ne dafa laaj yaatalal ci tontu ko te mënuma nii rek ni ma toogee ni nga laaj ma ko ma tontu la ne la mën na wala mën na nekk wala nekk day mën a nekk day ñàkk mën a nekk bu nekk dafa am ay ay sabab ay mbir yoo xam ne moo tax wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi